وسر لدواء وصحبه والمستنجد نبي أزكى صلاة بها أو الكرامات صلى عليه الذي أبدى مستنفذين به أزكى صلاة بها أو الفيودا منه بكلمات والجيس خلقنا من شوق ومن أشاف عنين شكل سجاها فخذ أمواتي من الخواتي

alhamdulilahi rabbil alamin ala xadimi rasuli rabbil alamin barakatul abdul xadim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara tey jiital ci nuyoo bi cheikh muhammadul muntaqa di ko ñaanal sunu boroom yàggal ko te wéral ko te musal ko ba li mu naal ci liggéeyal sëriñ bi lépp mu mottali ko te nu ànd ko moom ci barkeb Seexul Xadiim waaye di nuyu sunu kilifa gu tedd gii nga xam ne moo teew ci jotaay bi di Cheikh Abdou Samad Mbacké ibnu Cheikh Souhaïbou di ko ñaanal moom itam sunu boroom yàggal ko te wéral ko te musal ko te dolli ko kàttan ba liggéey bii mu nam ma liggéeyal sëriñ bi mu eggale ko fu kawe njortam ci barke Cheikhul yi ni nga xam ne it ñi lañ koo miine ci ay jataayam rawatina ci jataay bu am solo bii nga xam ne moom lañu duppee ëttub murit nga xam ne waxtu wu nekk du dañ di am waaye saa boo xamee ne nag dugg nañ ci weer wu bi wii nga xam ne mooy weeru safar di weer bi nga xam ne ci la sëriñ bi indi ndam lu rëy lii nga xam ne lislaam yépp ñoo ko bokk waaye rawatina nun taalibe yi nga xam ne noo aju ci moom saa nu ci àggee nag muy gën a yàkkale jataay bi te di ko gën a fësal ngir di ko dundale weer wi waaye nag di ko defe ci defee nu saa bu nu ci àggee mu tànn kenn ci ñi nga xam ne ay jëmm yu fi nekkoon lañ di liggéeyal sëriñ bi am taxawaay bu am solo ci liggéeyu sëriñ bi am taxawaay bu am solo ci yoon wi doon ay jëmm yoo xam ne du jëmm yu ñu fàtte mukk waxtu wu nekk dañ leen a war a fàttaliku di nafaraat seenu dund ngir man caa jariñu kon jataayu tay bii nag mu tàndoon kenn ci njabootu sëriñ bi ngir nu fàttaliko ko ci te mooy a Cheikh Saalih Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadul Moustapha te ñu bari gën koo miin ci turu sëriñ Saalihu ambassadeur nga xam ne jataayu tay bii kon day mel ne moom lañ ko jagleel ngir fàttaliku ci ak dundam ba taaliba yépp gën a mën a xam kan mooy Cheikh Saalihu Mbàkke moom ngir nu gën a mën a jariñu ci moom kon incha allahu rabbi sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguérane dana ñëw bu ko defee wax ci Cheikh Saalihu Mbàkke moom mi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku ci jataay bi waaye ginnaaw bu loolu wiyee itam waxtaan wi nga xam ne daanu ko waxtaane tey ci ëttu murit mooy waxtaan ci war may dëkk bi ni nga xamee ne kenn ku nekk xam na ne sëriñ bi amul benn barab boo xam ne gënal na ko barab bii ku ne xam ne itam ni jaayante jaayanteeg suñu boroom ba am barab bii te ñaan suñu boroom itam mu defal ko barab bii muy barab bi nga xam ne mooy barab bi mu gën a sopp ci kaw suuf ba suñ borom nangul ko loolu kon ku ne xam ne ne barab bii am na lu mu laaj ci nu nu fi war a nekke ak ci nu nu fi war a dunde kon war ma jooj yi nga xam ne nag yàll na ñu jox ko dëkk bii di Touba moom itam kon day mel ne ci la lañu war a waxtaan ki nga xam ne mooy def waxtaan woow yi nag mooy Serigne Abdoul Ahad Bousso Muxtaar ginnaaw bu Serigne Ahmadou Ndiaye daaneelee kon nu gën a bu baax rek te gën a taataan tey ñaan itam sëriñ bi nangul nu mbooleem loo xam ne yëngu nañ ko fi mbaa nu wax ko fi ci barkeb Cheikhul Xadim kon sëñ Ahmadu bismillah aouzu billahi min ashaytan arrajim bismillahi arrahman arrahim wa sallallahu ala nabiyil karim sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala wa ashaabihi wa xadimihi sawi ridwani wa tamkin ñu ngi wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi kilifa yoon wi cheikh muhammadul muntaqa di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu nu kiimaanu gudd fan ci jëmmam li mu yéenee lëggéeyal Sëñ Tuubaa def ci lu kawe njortam di nuyu bu baax kilifa ak jataay bii di Cheikh Abdou Samad ñaan suñu borom li leen wér ak kàttan ba li leen mag ñi bàyyee ngeen di ko sàmm yàlla bu ci dara suut yal na ngeen ko yóbbu fu gën a kawe fa mag ñi doon mébét barakati Cheikhul Khadim di nuyu mboolem bokk yi ci biir jataay bi yépp di leen ñaanal yéen maa lay suñu borom ak njëggalam barkeb Sëriñ Tuubaa di jiital rek ab nuyoo ak ub yóbbante mu jóge ci Sëriñ Cheikh Mbàkke moom Sëriñ Saliou gën koo miin ci Sëriñ Cheikh Sicap mu yabal rakkam Sëriñ Basiru yabal itam dayra saalikiina ba nekk ca biir kër ga di ko jàppale ca liggéey ba ñu ñëw teew si fii ci gannaaw Serigne du Samad ci liggéey bu am solo bii nga xamante ne nii yëkkati na ko te di ko defal mag ñoo ñi nga xamante ne nii ñoo fi jaaroon taxaw fi taxawaay bu rafet dund fi dund gu barkeel nu war a fàttaliku seen dund gu barkeel googee sëriñ bi di ci taxaw taxawaay yu am solo ci jottali ko jamono ak xemeem loo ko gone yi gën a yeesalaat pas-pasu ndaw ñi ak seen yitte loolu sëriñ bi nee na ameel na la ci ak cant doonte sa bopp nga koy defal ndax xam na li nga doon ci sëñ Saal xam na itam li sëñ Saaliw doon ci yow kon kenn mënoon na fee bañ a ñëw te du tey jataay bi taaroo na mu war a taaroo njaboot gu fi mën a ñëwit sa gannaaw lay topp jiitalul kenn teg la ci yow la jiital ci jataay bi ñu ci des ñëw fekk si la ci biir jataay bi kon jataay bi yowee boroom moom nag tànk tànki yaram moo ko téye waaye kon mooy ànd ak ñoom ñëw ndax yitte ju gën a kawe yitte ji ñu koy woo amuko ndax fàttalante rek lay doon jataay bi ak laayante biir ak soññante te lépp rek jëm ci joxoñu mag ñu baax ñooy ñi nga xamante ne nii fa leen suñ borom joxoñoon foofa lañ teg seen tànk wa anna haza sirati mustaqiman fattabiuhu mag ña ci diggu yoon wala ñëw kon nee na ngi lay sant bu baax ci taxawaay di la ñaanal itam ci yéene ji yal na la ci suñu borom defal lu kawe sa njot yal na la ci sëriñ Tuubaa defal ngërëmam nga xam na ni ngërëmal sëriñ bi rek nga ci sàpp waaye mi ngi la ci ñaanal bu baax a baax ngërëm loole yal na nga ko am nu gën a kawe na nga ko foogee bi barakat Cheikhul Khadim ndax gis nañ sa taxawaay ci yoon wi gis nañ sa taxawaay itam ci ñooñ yoon wi gis nañ it sa taxawaay ci lislaam loolu nag mooy taxawaay bi nga xamante ne nii mag ngi fi wóotu ci loolu lañ newoon ñi leen fi jiitu woon yi itam ci gaa yu baax ñépp ci même taxawaay yooyu rek lañ taxawoon kon taxawaay boobu yi yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla na ko suñ borom gërëm barakatu Cheikhul Khadim loolu la sëñ Bass waxoon ni naa ko jiital ci kàddu yi door a dugg nag ci jataayu waxtaan wi waxtaan wi nag ni ko bokk yi waxe léegi waxtaan la yoo xamante ne ni jamono daf ko soxla ndax fii jamono tolloo nit ñi laaj na référence muy ay royukaay laaj na itam ak teqantal ak laayante biir ngir ndaw ñi mën a am caslaay lu wóor luñ teg seen tànk man caa rawale seen diine ak seen pas-pas te loolu jàppuma ni mënees na koo am ci amin win ko bëgg te du nii danoo delluwaat ci dundu mag ñoo ñi nga xamante ne ni ñoo fi nekkoon ndax damay wax ni mag ñoo ñi sañc ñu àdduna bi ñuy ñëw ñoom fekk nañ àdduna dox lu bari waaye seen yitte ju kawe ak seenu farlu moo tax buñ ne suñ mag ñi rek xelum nit ñëpp ci sëñ Tuubaa lay tàmbalee aku njabootam kon seen yitte ju kawe ak seenu farlu moo tax seeni empreinte marke noonu ci àdduna ba tax buñ leen tuddee xelum ñëpp daw jëm ci ñoom foofee ñu tegoon seen tànk nag foofa lan war a wan suñuy ndaw danaa faral di wax ni rétroviseur bi ko tubaab di def ci wata bëgg lu rafet taxut daa bëgg a gis la ca gannaaw gis gi muy gis li ci gannaawam mooy tax vitesse mu bëgg a daw ci kanam mu man ko moo tax fi nu mën jëm fa ngir doxin wi mën a rafet mën a maase faw ñu xam ñi ñu wóotu ci barab bi fan lañ tegoon seen tànk te mooy mag ñooy ñii tey ñu tànn ci kenn ci njaboot gi boo xam buñ ko waxtaanee mën na représenter ñi ci des ñëpp ndax boppam ñéppam kon buñ ko waxtaanee rek mel na ni waxtaane nañ gaa yu baax yëpp muy sëriñ Saliou ibnu Cheikh Mouhamadul Moustapha waxtaan wi itam nu bëgg ko tëral rek ci ay points yu néew benn mooy wax fan la bokk ndax mbokk lu am solo la lu suñ borom jox wàccuwaay la lu mag ñi bàyyi woon xel la te résultat bi mag ñi am daf caa joué role yu am solo yoo xamante ne ni suñu bëggee yar sunu njaboot faw ñu bàyyi la loolu xel tomb yooyu daañu wax itam lenn ci ay jaar-jaaram ci sabab lu xam-xam ak aw yarinam ndax loolu itam daf cee mënta ñàkk ci nit faaw ñu jàngal ko faw ñu yar ko ndax sëñ Tuubaa ba ko mag ñi ne ndaw luñ jàngut ndaw lu jàngut yaruñu ko nu muy mel mun neen bu màgget di mag mu xamante rek mag mu xamante nag loo ko bàyyee mu yàqu moo tax loolu itam dafay baax def ci ab joxoñ ba ndaw ñu tollu ci jaarale leen ci barab yooyu yi ñu mën leen caa jaarale ndax dana tax pépinière bii ñu am ëllëg mu doon mag ñu am solo yoo xamante ne nii diine dana leen soxla société bi dana leen soxla ñu gis ni su loolu noppee sëriñ Saliou salaam mu ngi ci biir jataay bi ku ne xam na yi itam ni yàgg na ak Cheikh Salah ki bitim réew ak ci biir réew mi danañ ko jox kàddu moom it mu mu wax ci lenn ci ay melokaanam ak diplomatie ci jaxasoo ak nit loolu itam dafa laaj ak xam te moom daf koo dund ngir itam ñu bàyyi ko xel ndax ci bind yi ñu war a nafar la bokk kon loolu lañu bëgg waxtaan wi tëdde noonu incha allah kon ci tomb bu njëkk boobu yi di fi mu bokk muy kokki ak kër Cheikhul Khadim sëñ Tuubaa nag fardul alam la moom kenn du ko présent waaye dafay fekk baax sëñ Tuubaa nag day waane lu mu dugg soppi ko waaye fekkoon na fi borom yi cër dem sëñ Sala buñ koy topp ci biiru bokk kokki rekk ngay dem mu doon bokk gu am solo gu mat a bàyyi xel ndax bokk gu yàlla barkeel la ci diine ak ngor ba taxoon na mag ñi doon ko taamu ndax jikko ju rafet te loolu itam dafa bokk ci wàccaayu doomu aadama ngir mu mel melokaan wi nga xamante ne nii danañ ko soxlawoo ci moom dafa laaj itam ñu tànnal ko barab bi ñuy jóge ndax dañuy wax ni daam ci kenn ci boroom xam-xam yi koo xam ne dafa am ko ko indil doomam ni ko dama bëgg nga yaral ma mu ni ko kii yar ko weesu na te booba daa toll ci dal jàng nee na mu am dem amaat doom mu fer rek mu indi ko ni ko kii daal la bëgg ko ma ci dimbali moom nga yaral ma ko mu ni ko kii itam yar ko weesu na mu ni ko nag yaa muy bëgg a jaaxal andi naa fi ku toll ci dal jàng nga ni ma yar ko weesu na ma indiwaat fi koo xamante ni nii bis bi mu feree del seegul nga ni ma yar ko weesu na mu ni ko waaw bi nga bëggee ma yaral yaral la ko danga ma ko waroon a wax ma tànnal la ndey ja kon ci tànn waajur wu jigéen lañuy ñuy tàmbalee yarub gone kon gone dafa mel ni bi mu juddoogut ngay tàmbali di ko yar ba keroog muy gane àdduna waaye boo xasee xaar ba mu judd tëna la ndax am na jikko yu judduwaale yoo xam ne mënatoo ci dara moo tax sax wala fii daan wax ni képp ku la càmmiñam neexut bul jëlub jigéenam ndax boo jëlee jigéen bay càmmiñ la rek ngay jur moo tax mag ñi doon bàyyi xel bu baax a baax fi ñuy jëlee doonte fi toll ni jamono faaleetu ko waaye gis nañ itam musiba mi mu indil muy comportement yoo xamante nii kenn mënu ko expliquer te ci yooyu rek lañu tàpp lanu toppee mag ñi doon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ñu gis ni itam ni mag ñi bàyyi woon nañ xel ak nawlonte bàyyi woon nañ ko xel bu baax a baax ba tax na itam fi ñu daan jëlee dañ koy xam bu baax ndax mag ñi sax dañ daan wax ni jëlum soxna kër ndey walla kër baay mbaa xame ju yàgg ja nga xam ne doo leen laaj te duñ la laaj ñu daan wax ni li yées ci góor mooy takk jigéen ba pare wëlbatiku doonu géwalam te loolu mooy li ci ëpp nga xam ni yow rek yaa ko xam ndaw si moom lu ci waay mën a wax moom yow dong yaa ko xam fu ngeen mën a ànd yaay prosante loolu itam gis nañ jafe-jafe yim ñu indil te mag ñi daan nañ ko bàyyi xel bu baax a baax fonkoon lool ak nawlent mu mel ne jataay yi di ko tax am solo mooy dafa bari lu mu wecc ci société bi mag ñi amoon nañ jotuk su timis xasee passé ñu mën a toog ak seenu njaboot di leen nettali lenn ci dundu gaa yu baax yi jataay yooyu yi jamono dindi na ko moo xam lépp lay doon wala ay xisas lay doon yu am njariñ waaye lañ ci jublu woon rek mooy yar seenu njaboot ba boo demee ci minanu baaxil xadim yaa ngi dégg sëriñ Basiiru di nettali ñu soxna jaara daana waxtaanal njabootam ci ni leen gaay yu baax yi dañ daan fanaane taxaw di naafila guddi ba mu wax ni kii yàlla séddee bi mu tàmbali taxaw fanaane taxaw guddi booba dalagul jàng kon am na jeexital ci nettali dundinu gaay yu baax yooyu laqad kaana fii xasasim ibra waaye ñan li ulil absar waaye nag maakaana xadisan yuftara du ay tappale rek yoo xamante ni dañ koy fent ko wax nit ñi ngir mu neex waaye daf doon ay bind yoo xamante ni nii ku jóge ci jataay bi mën koo jariñoo te loolu mooy tax mu am njariñ nga gis ni ci jataay yooyu mag ñi daan nañ ci régler ay bind yoo xamante ni nii seeni njaboot daan nañ ko jëfandikoo mu amal leen njariñ lool ci seenug dund ndax daana tax ñu xam fu ñuy teg seen tànk ci tànn guñ daan tànn rek ak bàyyi xel guñ daan bàyyi xel seen njaboot nga xam ni demuñu ba jaboot dab leen waaye dañoo programme jaboot door a jaboot demuñu rek ba njaboot dab leen moo tax yàlla baaxe leen ñu juri doom lépp baax te loolu jafe na fi mu doon nii am ci benn xakkim bu doon dénk doomam ni ko dama bëgg nga dem ci aw fasu naaru góor mu jàngal la àdduna ak bar ak jaan mu ni ko fasu naaru góor mu ni ko waaw ma wax ni loolu su ko mag ñi wax dañuy bañ a tooñ mag ñi dañoo maanu te sàmm lenn lu ci nekk dafay lu xew ci société bi soo ko waxee nam amee ñu ni diw lay gaaruwaale wala diw la bëgg a wax ba tax ñu daan jël mala yi di ko def ay léeb di ko jox seeni gone waaye ay actualité la yoo xamante ni dañ koo dund ci biir société bi te bëgg mu ñu mu gaar seen njaboot nee na doom ji bi mu demee ci fasu naaru góor fasu naaru góor da ko wax ni ko sa baaykat li ma dal lay bañ mu dal la yow mu ni ko ah yow lu la dal mu ni ko man li ma dal berkelle sama dooma ku ko gis sam xel dem ci man te moo ma ëpp doole fopp waaye buñ ko doon jaay maa ko gën a seer maa ko ëpp njëkk xale bi ne ko loolu lu ko waral mu ne ko dama ko séqut ak sama nawle moo tax ñàkk nga séq ak nawleem moo tax loola gaar ko mu ni ko sa bàyyi loolu lay bañ mu dal la demee ci bar nee na day def bu jubee tefes gi seen bar bi nuur ci biir ndox mi ba mu yàgg mu fitti na ci kaw tefes gi dikkee mu laaj ko mu ni ko du seen gëma bi ngay ñëw léeg-léeg nga seen ma ci kaw jànj bi léeg-léeg nga seen ma bi man man nuur ci biir mu ni ko mu ni ko sa bàyyi daa bëgg nga nga doon am muñkat te xam ne adduna fenn neexul mu gis jaan mu ni ko sa bàyyi bëgg nga moytandi ko ak noonoo ndax lu ma dal ak noonoo ma ko teg muus ëpp ma njariñ ci kër waaye noonoo gu ma noonoo doomu adama tax yooyu daf ci am solo trop mag ñi daan nañ ko bàyyi xel looloo tax kii ñu bëgg a waxtaane tey Cheikh Mouhamadul Moustapha mii waajuram dafa waxoon ni sama doom joo làmb man ngay daj kon bàyyi na xel yooyu ma doon wax yëpp man ni leen loolu mën ma ko firi ci bàttin waaye saa yu si ma mën naa ko firi doomam joo gis mook suñu Moussa ñoo bokk mel na maam bu santu doon Mbàkke it suñu Moussa doon lim doon ci moom mooy boppam la jur ndax wax naa léegi Maxtaar Ndumbe mooy ma Masamba Faa Xujja Masamba Faa Xujja moo jur Masamba Maxtaar Samba Dingaraaj maxtar Samba Dingaraaj moom moo jur umma umma Jóob umma moo jur ma xujja umma ma xujja umma moo jur soxna Aminta ture soxna amintu Touré mooy waajuru Serigne Saliou ambassadeur ma xujja umma moom yi moo jur soxna Maguette ture soxna Maguette Touré moo jur soxna moom yi mi waajuru sëñ Abdou Samad mi toog moo tax man ko jataay bi sëñ Cheikh mënoon na ba ñu yónnee ndax doy nga fi ñoo bokk li ñu bokk kon kokki la Matar Ndumbe moom yi moo jur Modou Fa xujja mu jur Njaga Isa mu jur xarimaam mu jur Amintaloo mu jur Cheikh Mouhamadou Moussa ak Cheikh Mouhamadou Lamine kon tànnal nañ ko ay waajur te foofu mu bàyyi ko mboolem ñu mbokkal sëñ Moussa ñëpp te ñuy góor yi taxawaay bopp yi lañ am moo xam sëñ Cheikh la moo xam sëñ Mbacke Madina la moo xam sëñ Ibrahima ab sëtu la moo xam sëñ Xaadim la moo ñoo ñëpp ñoo ko sëñ Moussa tase nañ ci menn maam kon boppam la jur looloo taxoon itam moom mu sañ a wax ni duma jur ku ñàkk jom duma ma jur ku yaafuus ni sama doom xam na teraanga te goree diwul loolu itam ay jikko la yoo xamante ne ni dafa daje ci ñoom kon danañ gis ni ci néegu kokki la bokk kokki nag témoignage bi ci ëpp solo suñ tubaa ko def te boo demee ci jasaahu sakoorul atuuf nee na maxtar ndumbe mooy sangu képp ku mu jamonoonteel ci suufu kajoor ci jamono yam fay ne kooku doy na sëkk te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne iyaakum wal aroqa fa innal aroqa dasas maam bëggoon ñu bàyyi xel bu baax a baax sidit ndax dafay royaat looloo tax mag ñi doon tànn loolu danga nga gis ni la Sëñ Tuubaa doon taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni xat ustufe min xiyaarin maa ata ahadun minhum bi maa yuxbirul axyaara wal udama loolu dal na néeg boobu yi te néeg bu barkeel la boo xamante ni néew na ci waa Mbàkke koy làmb te doo ko daj ci biir néeg boobu kon ci ngay daal di xame ni ñii jikko ji ñu yor mënul ñàkk ñu yor jikko jooju ndax kenn mënta niru bokk jàmbur koo gis ay bokkam la koo gis rek ay bokkam la niru kon néeg yooyu ñu bokk jikkoy sang yooyu moo fa nekkoon naka jekk ba tax mag ñi doon ko taamu ndax joxoñ boobu yi la leen sallallahu alayhi wa sallam joxoñoon ci képp kuy samp kër ñeent la leen joxoon ni leen ku ci samp kër benn ci yi tax na nga samp kër waaye bii ci gën mënees naa samp kër ngir ab taar bari na ñoo xamante ni nii ka ne ci seen kër ab taar leen boole waaye du diine du jikko bari na ci itam ñoo xamante ne nii alal la leen boole xëy na famille bu am alal la nga bëgg ci àddabu ji bari na ñoo xamante ne ni xëy na aw tura leen boole ni ko Sénégal yi waxe mooy diw ci yax bu rëy la bokk donte kenn la ab yaxam tuutut ndax ñun ñëpp ci aadama lañ bàyyi ko waaye waxinu Sénégal la bari na itam ñoo xamante ne nii ci jikko ak diine lañ jëlee te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na boobu mooy bi ci gën ku jëlul ci boobu dóor nga sa loxo ci ëkk mag ñi nag ci jikko ak diine ci lañ doon jël diine ju rafet te jikko ji mooy jikko yi sang néeg bi loolu la fa suñ borom jëmbët ba tax ñooñ diine ñépp xeemeem seeni melokaan ak seeni jikko ba tax lu bari ci njaboot bi jóge fa sëñ Saliou mii foofii la bàyyi ko mu ganee àdduna njaareem ci 1926 la gane àdduna njaareem itam la gane àdduna duppee ko Cheikh Salah mu mag loolu itam bokkoon ci doxalinu Cheikh Mouhamadul Moustapha mooy ñi mu bokkal Sëñ mu duppee leen ak njabootam te bari na ci ci biir njabootam ñépp yoo xamante ni ni moom la leen dëppoo bi mu matee dal jàng alxuraan yitam ñu jaare la ko fan jaarale jaare la doomi soxna te mooy jàngal ko alxuraan jàngal ko xam-xam jànge na daaru rahman ci sëriñ ibrahima Dieng newoon na itam ci seen basiiru li ëpp ci xam-xamam sëriñ basiiru la ko jànge laata muy génn réew mi loolu itam day formation bu am solo boo xamante ne nii mënta ñàkk ci ndaw ñu waajal ko def ci moom xam-xam def ci moom jikko yu rafet tàggatal ko ay cëram ba mu nangoo yëngutu loolu itam jaarale nañ ko loolu bokk ci njàng leenum sëriñ ndax sëriñ bi dafa daan wax kilifa yooyu ni leen na doon seeni baay te bañ a doon seeni baay doon doon nag boorul bokkuñu na ngeen seeni baay te bañ a doon seeni ni leen xam ngeen loolu nu mu demee mu ni leen daa am xaafisul quran bu ne ci ab dëkk mokkal alxuraan lool bëgg ko lool ci xol bi bi mu demee ba màggat lal bi muy toog nga xam ne mënatu la déplacé mu ràbb ak tëgët tapp ko ci bopp lal bi tëgët bu njëkk mag ñi soow lañ ci daan rawale ngir bañ gone yi di ko yàq waaye moom kaamilu alxuraan la dagg teg ca mu tiim bopp lalam saa yu bëggee jàng rocc kaamil bi jàng su paree tegaat ko bi mu faatoo nag ñi ko mujj xam nañ ne amut doom ndax xamuñu doomam ña ko jëkkoon a xam ci ak njëlbeenam ne am na benn doom waaye doom ji mbërum làmb la day topp mbappat yi rek di bëri am fu ñu koy dégg ci dëkk yooyu yu wër dëkk bi ñu dem wëri ko ba fekk mu summi ko du bëgg a bëri ñu ni ko kaay wuyu ca kër ga ndax kat yàlla dikk na ak coobareem nee mu sol mbubbam ànd ak ñoom sëñ bi nee na ba mu ñëwee ñu dij ko ca lal bu bàyyam daan toog nee na doon na bàyyam ndax toog na ca lalu baayam bu solee dàllam mu jot ko bu solee mbubbam mu mu jot ko nee na kooko doon na bàyyam waaye nee na da doon fudd loxo ba dal ci kaamil ba kaamil ba tasaaroo mag ñi jël ko jox ko ni ko lijjanti ko sa waajuroo ko daan lijjanti nee na xamut kayit wu ci ànd ak morom ja nee na kooko doon na bàyyi waaye doonut bàyyam moo taxoon mag ñi doon sonn ci njaboot gi ngir taxawu leen ak yar leen moom foofu lañ lañ ko jaarale ci njàngum xam-xam njàngum xam-xam moom yi géeju na ci bu baax a baax ñu taxawu ko ci itam taxawaay bu wér boo xamante ne ni mboolem ñi jaxasoo ak moom xam nañ ni suñ borom dénk na ko ci xam-xam loo xamante ni ñi maaseel ci jamono bariwut ñu ko ci sun loolu feeñ na ci aw dundinam ñu gis nii loolu dañ ci dégg ci diggante bu gàtt boob yi muy boob yi mu feeñee jamono ak boob yi ñu koy saytoo muy jàng amu fi jot amu fi benn yoon jot guñ ko maye mu libre ba mën rëcc dem ci leneen moom ci boppam nag Moustapha nettali ne booba daa daa génn dem xamuñu fu dem nee na sëñ Moussa di ko wërlu wax euh, Baye Seydieng dang ci ni ko wëral ma ko ne ko gis rek na ñëw ni ko bu lànkee ba ñu ñëw sax wutalu buum yooyu da ngay gis ni mag ñi amuñu woon yërmande ci yar suñ Moussa da daan wax ni koy yar doo yërëm yar ci boppam dafa am lu mu laaj nee na ko tey ngin ginaaw la ma la ma bàyyi Cheikh fekk nee na ñu tegal ma ab sees dama siyaare nee na bi ma ko gisee laa ne yëf yi yàqu nee na mu séen ma moom it di mag mu njar rab ba tolloog man li ma yow lañ ma yónni de léegi nag danaa la may nga dajale say bagage xotti ñawlu ñu door a dem nee na ma dajale la ma fa am xotti ciy séer ñawlu jënd walis ñu door a dem nee bi ma dikkee sëñ Moussa bi ma jógee dañ ma saliwu foo demoon ma ni ko damaa wuti woon ay yére nee mu ree daal di jell waaye nee na da caa yemut nee na ba Baye Ibra Jëng ñëwee ab jëng la daaj daat ko jox daal ni ko boo <laughs> boo demee jëngu yooyu yëpp daf lay xamal rek ni la xam-xam bi mu am du luñ ko sol yoon wi fi mu doon ni boo amee xam-xam dañ naan dañ ko koo sol te mag ñi dañoo xaw a dee ci xam-xam door caa xam liñ ci xam ndax xam-xam da jox sa lépp mu jox la tuutam waaye soo ko joxee tuuti du la jox dara te gone yi nangootuñoo toog ci barabu jàngukaay ndax àdduna sëkkatal sëkkatal woo xamante ne ni matériel lañ gën a teg ci seen kanam ci xam-xam te mag ñi seen objectif xam-xam lañ gënoon a yittewoo loolu lu ci am solo la lu mat a bàyyi xel nga gis ni itam ni ci barab yooyu yi nga xamante ni ni foofu lañ leen doon yare barab la woon yoo xamante ne ni moyen jàppandiwu fa woon dëgg-dëgg amuñu fuñ leen doon ber ndax seenu sant déedéet ñoom ñëpp a doon jaxasoo la ñëpp doon gisit noonu lañ ko doon gisatoo luñ ci jublu woon mooy yaral leen seen bakkan lu tax mooy regg regle daa jafe regg regle dafa jafe moo taxoon ñu leen doon yar ci xiif ak sonal seeni cër ngir bañ àdduna tarxiis loo leen nga xam ni boo delluwaatee ca uqa dangay gis ni méthode booba rek mooy sumtun wa jooxun tawilun baadohu saharun wa uslatun an siyoxi bil isarat foofu rek lañ leen doon jaarale am na benn bis ci jataayam nii rek ñu toog nii rek am genn góor bu toog noonu rek léeg-léeg mu ne ko sëñ bi war nga maa sant de sëñ Saal ni lu jëlale ba mu yàgg sëñ Saal ni ko léegi waxal mu leer waxal ca kaw loo ma defal ba ma di la sant kooku ni ko ah bañ ca daara ja maa daan yalwaan ngay lekk sëñ bi ni ko léegi taxawal man la sëñ bi jur saw tur nga daan yalwaane buñ la saraxee sarax ba doon nga ñëw ma lekk nga lekk ci léegi gaa yi àtte leen lu ma defoon nga gis ne nit ku am diplomatie la ku mën a animer ab jataay bu am njariñ nag boo xamante ne nii la cay juddoo nit daf koy mën a jariñoo ci boobu yi muy am vingt six ans di mille neuf cent cinquante ànd ak sëñ Mbàkke Soxna di ko yóbbuwaale Algérie fekk moom mi ngi Algérie di wéyal am njàngam nga xam ni ci ñaar fukki at ak juróom benn la toll boo gisee xasida gi mu def di ci dénk sëñ Mbàkke ci ngay xam ni kii niveau ci xam-xam yëkkati ko na te danga da nga cay jànge ni ku ragal yàlla ngi nii di wax bu naya ittaqillaa la jiital sama doom na nga ragal yàlla moom la jiital te xamal ko ni ko ni ko nag lépp loo denc te du ak ragal yàlla na xam ni dencoo dara li gën ci li ñu denc mooy ragal yàlla mooy koom mi nga xamante ni nii képp ku ko dajale perto waaye keneen ku dajalewut lu dul loola ak lu man di doon nanga xam ni doñ ju galaas la bu jant bi fenk nga koy ñàkk wax ca itam ni mu bëggee mu dunde ko day wax ni ku maîtriser xasida ga dund sëñ Mbàkke da xam ni joxoñ boobu yi ko waajuram yi joxoñoon foofa la teg tànkam ndax daf ko soññoon ci sàkku xam-xam muy moom fi ñu ko jaarale foofu la amoon yéene yi doom joj yi jaar fa wax ko itam xeeti xam-xam yi nga xamante ni ni nit mënu koo ñàkk te la ci jiitu mooy alxuraan la ci jiitu mooy fiq ak tawxiid nga xam ne moo tax suñu borom wàcce na loolu itam doon ko wax itam ne ko nanga doon nit ku am njariñ koo xamante ne ni loxoom du dagg ca mbagg ma ca kaw maanaam ku ku tàlli lay doon koo xam ne lu am da koy joxe doon ko waxee itam taxawaay bi mu war a am ci xam-xam ni ko ndax am na masala yoo xamante ni ni xaddamiku tontuwu ko xam-xama koy tontu te bari na fi mu doon ni jataay yoo xamante ni boo fa indee masala dañ naan kii dafa yabaate wala day nattu sëñ bi ba xam fan la toll sëñ moom masala lañ koy doyee ak masla su ko mënul daanaka jërul toog ndax amatu fa njëriñ bu mënta tontu masla mënta masla loo fay def wala tusahib in aradta sohba saa safahin aw xasadin aw raxba wala tujaalis xayra man bihi tuza diinan wa aqlan abadan tanal muraad yooyu yëpp daf doon ni ku teel a xam àdduna la ku teel a bàyyi xel na ci ni muy doxe bi nga xamante ne ni yàlla dogal na itam mu weesu jamono yooyu sëñ Saal dugg na ci classe jàngale jàngale kon ab jàngalekat la woon boo xamante ni nii jëfandikoo na daa ak àlluba jëfandikoo na crayon ak tableau jàngale na ci jëmmam jàngale na itam ci xam-xam bi nga xamante ni moom la ko suñu borom jox te loolu magam ju baax jooju di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké nga xam ne seen dund gépp benn la moo ko waxoon ni ko saaliwu mu ni ko Mbàkke mu ni ko sëñ Tuubaa bi mu fi nekkee jàng ak jàngale moo ko waroon tey ca ne woon sëñ Muusaa bi mu fi nekkee jàng ak jàngale ko waroon tey ci la ne woon ni ko maag yow mii moo nu war doonte nekkuñu ci nag danoo wut waru wut ñu ni ca wut sëñ Cheikh moom loolu mooy objectif mu taxawal école yi école yooyu bi mu ko taxawalee sëñ Sall daana dugg ci biir classe yi di jàngale te ab sëriñ moom jàngale lañ koy doyee ndax ndonol sëñ Tuubaa li buñ ko dee wax ndonol li du tabax du ay kër alal juñ denc jàng la ak jàngale yar liggéey jaamu yàlla lii rek mooy ndono te loolu gisoon nañ ni ci la jeexal ak dundam ñu gis ni itam ni ku ñeme ay jataay la woon muy jataay yu ubbee ñi miin ab xadaraam xam nañ ni takkusaan bu daan jot ba mu xas génn laajal lu la neex lay wax te du dellu ci téere du yoru kaye di noté laaj bu ñëw réponse baa ngi tege salma siita loolu lay wax laajal loolu neex fu ne la ko question yi daal dikkee moo xam yu aju ci biir yoon wi la ndax ku ko gën a maîtriser yoon wi ci xam-xam ndax gëstu na ko gëstu na yoon wi dëgg-dëgg yoon wi gëstu na ko bu baax a baax principe yi Sëñ Tuubaa tënke yoon wi nga xam ne mooy kenn yi ko yanu loolu am na ci xam-xam bu wér a wér ndax dafay fekk mag ñi te suñ borom teel koo xiir ci gëstu mu bokk ci mag ñi itam nag ndax 1926 la gane àdduna doon itam koo xamante ni ni nit ku laa biir la torop ci mën a jaxasoo aku nit ndax damay wax ni su fekkoonte ni damay tënk ci ay jikkoom dama naan nit ku woyof la ndax jataay bi muy toog nun ñi ñëpp ca lañ daan toog ak ñoo xamante ni mat nañ ay baay ak ñoo xamante ni ni xëy na buñ doon ci ay as mat nañ ay maam waaye dawul feeñ ci jataay ba noonu foofu la daan toog ci jataay ba di déglu li muy wax te suñu amee question itam buñ posé daf nuy tontu am na ci boo xamante ni rek daf nu wax ni nu na ngeen góorlu fekk boobu nun man noo fi nekk Moussa Bassir soo Moussa Sow Diop sa xurja la ñoom muy na ngeen góorgóorlu fekk fukki at ak juróom ci kanam laa leen may lu ñuy laaj ci yoon wi yéen nañ koy laaj booba kenn ci ñun ko ci xalaat ni danañ agsi ci ji jataay yu mel nii di ca jéem a am kàddu wala nga cay wax amul li ñu waroon a xam ci sëñ Tuubaa fi mu doon ni asaka ji xamuñu ko sëñ bi damay wax ni ndax xam nañ ci un pour cent un pour cent ndax xam nañ ko ci te jour à jour mënoon nañ koo xam ci sëñ bi ndax mag ñi amoon nañ farlu jege ko di bind ñeneen ñi ci des seen bopp yi di am waaye lañ xam doon ko bind lenn la sawara yóbbu na ko la ci des mag ñi yóbbaale nañ ko ci biir armeel li ci des jamono tasaare na ko kenn xamut tan la dugg waaye moom suñ borom teeloon na ko ci ci jataay ñu gis ne itam nit ku mën a muñ la ku mën a muñ nit ku mën a muñ ku mën a tegooy coono yu bare bari ndax tàggataloon nañ ko ay ay cëram ba mën a tegoo ay coono te du ko jàmbat ndax fañ jaarale ñëpp rek fa lañ ko jaarale nit ku yaatu la woon itam ndax jataayam ni ma ko waxee rek ñëpp ngeen fa daan fekk nit ku tabe la itam koo xam ne mos a dencal dara ngir ëllëg ndax sëñ Saal bu fekkoonte ni nii kuy denc la diggante bi bi mu doon yëngatu def dara dana fi bàyyi ay sëtu waaye lu am da koy joxe parce que loolu lañ leen yare ndax euh, sëñ Moussa ak sëñ Massamba ci Ceyeen Jolof sëñ bi daf leen wax ni leen ni li fi ñëw ñu leen koy jox ngir sama jëmm sama alal la maa ko moom maa leen ko may mu lew leen domb ni leen nag yitte ju mu fekk na ngeen ko ca def lu ca des na ngeen ko jox jaami yàlla yi kon denculoo wuñ la moo tax sëñ ji naw naa ko lool ci taxaw taalibe suñ tuwaay ci jël alalam di ko delloowaat ci ci jaami yàlla yi lu am solo la ndax compte moom kuy dajale du juboo kuy laaj te compte moom ñaare kuy dajale koy am sëñ Bakki Sow daan wax ne du ma am compte ndax compte xamut samedi ak dimanche samedi ak dimanche du ko liggéey te borom soxla xamut samedi ak dimanche nee eh, dawul am compte ndax compte moom banque du liggéey samedi du liggéey dimanche te nee na borom soxla moom xamut samedi ak dimanche moo tax taxawaay yu am solo la nit ku lewet la woon itam koo xamante ni gis si di toog jëm yombut lu dul ni nga sa faañe ormay lislaam ji mbaa nga a toroxal nit ci kanamam boo ko defee mu réagir doonut ci tam nit koo xamante ni nii ku naqari deret na ku naqare nekkal ku mën a maslaa la koo xamante ni doo gis mu jànni doo gis mu gëdd doo gis itam mu wax ak nit waxin wu dëgër woo xamante ni da nga yëg ci sa bopp ni damaa def njuumte wala su njuumte amee ci gone yi muy yar buy wax ñëpp Sëñ Tuubaa la donn ci boole ñépp wax ak ñoom waxin wu teey nga xam ne ki def dana xam ni moo def ñi defut danañ ci soññoo waaye ki def itam dana dana dana reculer doon itam nit koo xamante ni nii doo xam mukk lu ko naqari déedéet du du am lu ko naqari ba manifesté ci kanamam waaye du neex itam ba muy xóoyu déedéet loolu du feeñ ci moom doon nit koo xamante ni nii diirub li ngeen di nekk duñ la mukk lii nga def waroo koo def waaye ci defin wi yoway dem ba yëg nii lii nga def jaaduwul te loolu mooy yarinu nitu yàlla mooy doxinam aku dundinam dañ ci man di roy di man di corriger sunu bopp te loolu gis nañ ndax euh, ci exemple rek dañu benn bis boo xam ne dañ ko andil café nii dañ ko fàtte suukar rek soxna maam da koo fàtte suukar xellil ko ñu ko xellilee moom daa jël di naan ay nit a nga foon seexloo ñu xelli jox ko mu góox daal ne ko sëñ bi xanaa da ngay faju kon ñaari yar yi wuute nañ mu ni ko ah lu mu doon daan koy ree laaju ko mu ni ko ah kafe gi dañ koo suukarul na si door a daw dem di wuti suukar waaye sëñ moom at du ji te buñ bàyyi woon it noonu lay naane loolu mooy mooy yar giñ ko yarloo bakkanam ndax suukar soie rek la du lu mënta ñàkk soie la waaye yar na bakkanam ba bu ko amutit du ko jàmbat loolu lu lu am solo la te loolu itam dafa mën a may nit lu bare bari dañuy wax ni ci kenn ci mag ñi koo xam ne dafa mus a toog ci wetu sëñ Tuubaa sëñ bi loolu daf koo gaar mooy dafa attaay ba pare fàtte suukar barada bi xel li jox mag moom mag mi naan ginnaaw bi sëñ bi fàttaliku ni barada bi suukaru ko waaye mag mi daan naan rek ni cell sëñ bi ginnaaw bi la fàttaliku ni suukarut barada bi sëñ bi ni ko attaay ji nu mu demee mu ne ko ah mbàkke yow rek ko man lawal buñ suukar dàq buñ suukar yow rek ko man sëñ Tuubaa ko teggin yi nga jëflanteeg man danaa la ci defal loo xam ne kuy sam kem dana la ñee ndax xamal na ko baraada bi suukaruñ ko waaye ci kaw yi teggin ndax dañu ko lëw ah, lëwul buñ suukaru dàq buñ suukar moom yow rek ko man moom da gis ni uh, roy na ko ci googu wet te yooyu ay bind la yoo xamante ni ni dafa mat a bàyyi xel lee léeg nga gis ñu ne ni sama classe gi ku ñëw dal ci kaw waa këram ci luñ ko waroon a defal te fàtte ko rek loo xam ne du sunna du dara du mandóob sax mu tàng ca tàng ba daanaka ba wutul diggam ak soxna si mën na caa doon aw dikk ay fan mu door rek léew te bakkan dong lay doon te bis bi sa soxna si faat waxtu farata du du ca nga xam ni kon defarin wi moo des loolu loo am solo la waaye da gis ni daal nit ku woyof la nit ku mën a muñ la nit ku yaatu la nit ku tabe la nit ku lewet la nit ku gore la ku dégg ndigal la yii daal jikkoy sang la yoo xamante ne nii yëpp ñu ko miin te jaxasoog moom daje na ci jëmmam doonoon itam ab defarkat yi tam kilifteef ndax diirub magam yooyu yi di fi nekk ci seen gannaaw rek la tëb di wéy seen ndigal di dox ci seeni service dëggam ak taalibe yi itam waxtu wu ci nekk lañ leen man ci jariñ leen ci seen xam-xam amu ca lenn loo xamante ne nii doon na ko ca ñéeblu jariñ leen itam ci jëmmam ci taxawu leen ci yenn ci yitte yi moom itam amu ca lenn loo xamante ne nii doon na ko gantu yooyu itam daf cee baax trop ci jamono xam yan relation la lanu am ak kilifa yi nga xamante ni ñoom la suñu borom jiital ci suñ kanam référence yi ñu war a doon ngir ñu man leen a roy loolu itam dafa mat a bàyyi xel bu baax a baax ndax toujours damay wax ni la banki tànk bankutum xel te nit koo xamee sooy wax ak moom la damm ca wax ja lay gën a xam ca la nga koy wax lépp loo koy wax war naa leer moo tax nu war a sonn bu baax a baax ci yar njaboot gi ak teg leen ci aw yoon fexe ba seeni cër yaru seenu xol yaañ bi seen yitte kawe seen diggante ak seen borom ndax léeg-léeg fu ñu doon nii nga gis koo xamante ni nii daf lay wan sax ni la maa la gën ndax nangam wala maa la gën ndax nangam ak nangam nga nangu ko ngir bàyyi fa orma ja orma yi këm muy tuddoo waaye moom ci jëmmam mën ngaa waat ni bëggoo doon moom ndax ay jikkoom loolu nag mat naa bàyyi xel bu baax a baax moo tax mag ñi ñu doon sonn ci yar leen doon sonn itam ci teg leen ci aw yoon waaye loolu lépp mooy bëggoon rek mission bi taxoon suñu boroom indi leen ci kaw suuf ñu matale ko jëmm ji ci noon yi rek la doon la doon dund ba suñu boroom matal ab liggéeyam amut benn yoon boo xamante ne ni manees na ko critique ci ak dundam ni lii des na ko te waru ko woon a def lii wax na ko waru ko woon yooyu nag bu jamono tollee fii warees na koo waxtaanee ngir ndaw ñi jële ci ay bind man cee soññoo man cee itam amee ay référence pour mën a dox jëm ci kanam ndax yoon wi fi mu toll nii yëngu na yëngu na bu baax a baax ñëpp daw nañu wut si ko ñëpp daw nañu wut si ko waaye des na ab liggéey bu baax a baax ci orienté leen ndax bari na ñoo xamante ni yëngu bi ak folklore bi moo leen indi waaye jàpp naa ni dëgg dëgg sëñ Tuubaa buñ leen ko xamaloon dana ci bari ñoo xam ne dañuy wàññi ko ndax dañu waxuñu woon loolu ndax sëñ bi moom fowut fooluwut anta kuy fo te loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax ndax ñii ñuy tudd moom amu ci kenn koo xamante ne ni benn yoon tuddal nañu la am foo wala ñu tuddal la lenn lu koy niru loo xamante ni mos nga caa passé sa temps déedéet mos ñu leen koo may benn yoon kon loolu bokkul ci yar bi yar bi dëgg-dëgg mooy yar jàng ak jàngale ak yar ak jaamu yàlla ak liggéey su ko xasee génn leneen lay tudd waaye lii mooy ndonal Sëñ Tuubaa li nga xamante ne ni moom lañ fi bàyyi mag ñi nga xamante ne ni ñoom lañ doon tudd itam fii lañ tegoon seen tànk mag ñooñu nag ameen nañ leen bor muy saa yu ñu wéetee war nañ leen a ñaanal bu ñu wéttali ko war nañ leen a waxtaane ndax loolu mooy tax seen ndono li ñu fi bàyyi mën a dund mooy tax itam jeexital yi ñu fi bàyyi ndaw ñi mën koo xam mooy tilka azaruna isa aradtum an taarifuna fattabiu na ñoo ngi wàcce foofu sunu kàddu ñaan suñ borom lu ci doon rëq-rëq noo koy jéggulu lu ci doon aw ciw yoon itam noo ngi ñaan suñu borom ful ko def ko aw yiw barakat Cheikhul Khadim noo ngi jéggulu bu baax a baax ko defee nu jox sëñ Saliou Salaam moom mi nga xamante ne ni doon na dund ak moom ci wetu administration ci wetu diplomatie ci ambassade yi ak waneen dundin woo xamante ne ni itam jamono daf koo laaj ngir nu mën caa amee ay bind ci mën a yaatal sunu dënn ak mën a jaxasoo ak fas yéene tam doon ambassadeurs yi Sëñ Tuubaa ci fu mu ci man di doon ndax nit la koo xamante ne ni fenn fu ci nekk ci àdduna teg na fa tànkam waaye amu ci fenn foo xamante ni da nga yegg Sëñ jaare ko ci jëmmam loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax te sëñ Tuubaa daf daan wax ni képp koo xam ne des na la tudd di ma tudd yaa xam loo mën a doon ci man te su nit jógoon di ma seet si su yamee ci yow du ko jaral ak si ndax soo melokaat sëñ Tuubaa ne doo jéggi siraat mukk te la yoowuñ ko mag yow loolu nag mat naa bàyyi xel bu baax a baax ñu xoolaat comportement yi xoolaat kàddu yi paroles yi ñuy wax ak ni ñuy dugg beeg génn beeg jëflante bi yooyu mat naa xoolaat te yooyu buñ xoolee ci mag ñi rek danañ ci am bindu yoo xamante ne ni buñ ko gànnaayoo zéro faute la ñu am wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki taalibe ak mbokki jigéen yi fi teew ñoo di nuyu di di leen di ñaan ci jaay yi ni ko sëriñ Thiergane waxe léegi ànd ñaanal na sëriñ Muntaxa Mbàkke xafidahullah yàgg fi lool te wér ndax wax dëgg yàlla sagal na yoon wi sagal na sax képp kuy jullit te doo te nekk te dëkk ci réew képp ku di jullit te doo murit tijaan yeeg xaadir yeeg laayam yi ñëpp koy tiitaroo di sant itam sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Samad mii nga xam ne yàgg na lool mm, lii yàgg na koo def waaye am na yeneen taxawaay yoo xam ne mi koy taxaw di ko dox ci suuf te feeñul te xam naa ci dara wax dëgg yàlla eh, yoon wi ñor na ko lool te lii mënu woo tey jii ak yu yi weesu li nu ko def loo ñun ñëpp moo nu ko dàq moo nu gën a xam yoon wi ba ki ci kii nuy waxtaane tey ji sax moo nu ko gën a xam te moo nu ko dàq a wax xanaa kay daa bëgg a yaatal rek kon jërëjëf Mbacke di ko sant itam nag ndax it nag man mii di wax ak taxawu na ma ne kon loolu suñ bi naa la ko seereel fii ci bés bii kon noo ngi sant bu baax a baax jëm ji nuy waxtaane it nag muy sa mag di sa sëriñ di sa xarit muy sëriñ Saliou Mbacké mi ñu gën a xam ci sëriñ Saliou ambassadeur day jëm joo xam ne waxtaane ko du yomb ndax dafa nekk jëm ji bari anam li ñu naan multidimensionnel la woon xëy na man ñaareewu tomb yi rek laa bëgg intervenir moo di ne ci wàllu diplomatie xëy na ak ci wàllu culture ak xam-xam bu dee ci wàllu diplomatie lii Serigne Thiergane wax ci ay jikkoom te muy lu lu dëggu loo xam ne ku jaxasu moom xam nga ne ni mu ko waxee noonu la amee jikko yooyu ak jaar-jaar yooyu ku ci génn école la boo xam ne ku ci génne da nga mat sëkk sëkk sëkk diplomate moo tax gisuma benn diplomate boo xam ne réussir na ci carrière lu mel ni ni Serigne Saliou Amas la réussir ci carrière am te loolu dinaa ci joxe ay misaal kon ci école boobu lañ génn léegi génn ci école Serigne Mahamadou Moustapha inspiré wu bu baax ci Serigne Cheikh mi nga xam ne da koo tegal fu ko kenn tegut moom Serigne Saliou jàpp leen ne moom moo njëkk génn nekk diplomate ci arabisant yi dem bi gannaaw si axamitiyan si Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum la njëkk a nommé ambassadeur Égypte suñu Saliou ambassadeur tegu te ñu ne ko premier conseiller ci ambassade Sénégal nga nekk là-bas ca muy benn ñaareel ba itam mooy bokk na moom ak ñi ma ànd la ñooy première ci ngeen di tudde arabisant booba Sénégal amagul indépendance ca la ñu déggee ni woon réew dem jàngi ci Algérie moom ci wàllu diplomatie rek mara buñ ko njëkk avec euh, mu def liggéey boo xam ne euh, ñaari exemple laa ci jox bu njëkk bi moo di ne am na bés li mu liggéey ci biir Maroc discrètement ak yi mu liggéey au niveau des sonorités marocaines ak ci ak famille royale bi ak ci palais bi ba nga xam ne am na lu bëree bëree bëri loo xam ne bu bu doon keneen a ko defoon kon tey ñëpp daañ koy ko siiwal ci àddina ndax am na bés nu génn nu génn guddi ci otoom ñu def sopp kañ la defal sob ak benn kilifa boo xam ne mën naa wax ne gannaaw booba gannaaw la roi Hassan II moom moom lañ tudd woon ne moo ëppan doole ci réew ma junju junju doy na boroom xet ndax bi ñu defee sob bi matul cinq minutes armée beeg gendarmerie ñëpp teew ci saas ak motaar yi ñu daal di xool kooku moom du xool ko tooñ ko tooñut moo di ne ki mu defal sob kooku dañ ko daal di yóbbu ci saasi waaye biñ ko xoolee ñu laaj yu nekk yi ne ah ab diplomate dañu ne kan la ñu xool xool yi ne ah monsieur Mbacke ñu daal ci saasi dañu daal di jokkoo ci seen yooyu ñu jokkoo ñu daal di leen yóbbu leen ko xaar leen tuuti ñu yónnee oto ca camp ba mu ñëw ñu daal koy jël yóbbu ko këram maanaam neen ko yóbbu ba këram delloosi delloo bala ngeen di def dara yóbbu leen ko ba këram ba noppi ñu indi oto dugal ko ci yóbbu ko këram ndax otoom otoom yàqu na waaye bañ ne monsieur Mbacke la rek ñu ne ah monsieur Mbacke moo ko def ñu ne waaw ñu ne ah kon yóbbul xaaral ñëw leen oto ngeen yóbbu ko këram beneen bi ci des dañ doon yëngatu ba war a sos lu ñuy wax benn association ba ñu tuddee. Euh, association culturelle pour pour la promotion des œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba maanaam jamiya saqafiya eh, li ixyaay turaas si Cheikh al Khadim loolee bañ ko sosee ba noppi dañu bëgg na am autorisation bu gouvernement bu Maroc ñu daal di lijjanti ba ñu demee ba pale ci suñu lijjanti ak ñu doon dimbali mu jafe lool ñu ne ñu jox autorisation waaye biñ leen waxee leeralal leen ne leen Ahmadou Cheikh Ahmadou Bamba ñu ne kii ñu ba ñu déggee Mbàkke je ñu ne lu mu bokk ak monsieur Mbàkke bi nekkan fi ñu leen kooku maamam la mu ne ah kon daal di leen ne kon dañ leen di jox autorisation c'est ça te booba sëñ Saliou jóge na jóge na Maroc ba dem ba ba dem ba dem Mauritanie loolu pour wan la daye bi nga xam te ni ak trace yi nga xam te ni bàyyi na ko Maroc ci biir Maroc tam ci wàllu li sëñ bi doon wax léegi moo di ne mbooleem ko fa nekk étudiant bu vacances ñëwee ak jour yi nga xam ne du ñu jàng ñëpp kër sëñ Saliou lañ daa daje moo nekkan place bi ñëpp daa dajale mën naa ci tudd tey jii te booba ña ci nekkan ay murit matuñu matuñu deux pour cent waaye ñëpp këram naa daje mën naa ci tudd Ismaïla Dem mii tey di sunu xarit nekk ligue islamique mën naa ci tudd Abdourahim Dia di euh, waa Fouta mën naa ci tudd Ahmed Iyane Thiam ñu fi bàyyi ko bu yàggul yàlla na ko yàlla na ko yàlla yërëm ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci waa Ñaseen ak waa Laayeen ak waa Njaasaan këram lañ daa daje fa lañ daa lekk fa lañ ñenn sax fa lañ daa fanaan ba bët set ginnaaw gi bi mu fi jógee dem Mauritanie ñëw Sénégal ñu delluwaat nommé ko nag ambassadeur Irak ba mu demee Irak foofu itam lam fa def ci ma koy tënk ci benn baat ndax waxtu wi moo di ne jamono jooju liggéey ba mu fa def ak fa Sénégal tollu woon digganteem ak Irak bu nu bokkoon bu ñu bokkoon frontière Sénégal ak Irak bu ñu bokkoon frontière ci jamono jooja seen Irak dina déclarer Sénégal guerre maanaam bu fekkee dafa mel ni Sénégal ak Mauritanie. kon dana nu geer ca jamono jooju waaye sëñ Saliou radiyallahu taala anhu moo de moo e, lijjanti mbir moom ba mujj sa Saddam Hussein ci boppam daanaka xaw koo def conseiller di ko woo pale ba mu dem na sax ba mujj da ko wax lan nga bëgg ci réew ma am na fonds yu bari yoo xam ne ñëw na Sénégal sëñ Saliou ko lijjanti te Sédar na koo ko jox bokk na ca lycée ba ci Njaareem lañ ko tabaxee ak beneen lycée boo xam ne fonds yooyu lañ ko tabaxe waaye dañ ko dañ ko détourné ca ca Ndakaaru am yooyu duñ ci yegg bi nga xamante nii eh, ñu ngi ko war a affecté Koweït bi note bi ñëwee Saddam Hussein daf ko ne daf ko woo mu ne ko lii de bu fekkee ne man maay dogal de doo dem fii ngay toog waaye nag ginnaaw dogal bi xas na ñëw te ci sa réew la jóge mënuma ci dara waaye nag suñu diggante lii laa la ci ñaar foofee am na fu nu fu ñu jaar ñoom ak jëflante bu nu jëflante bi mu jógee Irak itam dem Koweït ni mu nekk Maroc nekk ko Irak noonu la nekkee itam Koweït moo di ne ba àjjuma ju ne mboolem personnel yi nekkan ci yaram liggéeyal ci ambassade chaque àjjuma këram la ñuy añi yenn ko ba ngoon jot ku ñibbi ñibbi ku ñibbi ñibbi loolu mësu koo bàyyi àjjuma bu yàlla sàkk yi personnel bépp këram lañuy ñuy yenn loolu am na ci dañoo dem ba mujj bi bi ñooñu ñibbisee tey ji am na ci ñoo xam ne dem nañu retraite ñeen nañu faatu nañu am nañu fi des mën nañ cee tudd ñeent ñoo xam ne tudd nañ ko doom te te te te dëkkuñu Tuubaa du ñuy muri ndax loola rek jëf bi jëflante bi sëñ bi doon wax léegi ak yaatuwaay ba modestie ba ak ni mu meloon ak nit ñi diplomatie boobu nga xam ne da koo nàmp doon na ko taxaw na ba ñooñu xamuñu luñ koy fay loolu dañoo am doom tudde ko ñu ngi fii tey ji ci ci réew loolu laa ne mën naa ko tënk ci li ma xam ci diplomatie euh, euh, maanaam euh, taxawaayu sëñ Saliou ci wàllu diplomatie ah, daf ci am yoo xam ne nag mënee su ko tudd ndax ku ne diplomatie ne confidentiel ay mbiri yu ñu dul wax la waaye li mu def ci réew mi li mu def ci li mu liggéeyal réew mi ci suuf kenn mënu ko wax te moom waxu ko kenn waaye ñi ci kaw xam nañ ko te ku ñëw dem ci archive nationale yi dem archive ministère des affaires étrangères dem archive bu présidence de la république di nga xam kan mooy Serigne Saliou ci wàllu boobu li mu liggéey réew kenn mënu koo wax eh, mu am nag beneen tomb boo xam ne bëgg naa cee sànni kàddu rek sëñ bi daanaka tënk na ko muy ci wàllu xam-xam xam nga sëñ Saliou buñ nee dafa am xam-xam rek du doy maanaam moom d'abord shaayir la maanaam poète la avec maanaam bi kulli maanaal kalima maanaam avec toute l'acception du mot maanaam poet bu nekk ku ko mën a woy déedéet poète du ko mën a ñu ne ak a mën a woy taxul nga nekk poète poète da ngay dangay da ngay nekk koo xam ne da ngay peeg fànn yépp da ngay way ci njàmbaar woy ci xikma sagesse woy ci nature woy ci politique woy ci social woy ci jikko woy ci mbëggeel fànn yépp da nga koy peeg lu ci nekk sëñ Saliou wooy na ci mu tax mu nekk poète mën nay wax may waxtaan ak bés ku ñu wax Lamine Diakhaté euh, xaritu Senghor la woon bu baax a baax a baax waxuma la man jaxate ambassadeur dañoo bokkutu kii conseil culturel la woon jamono ji suñ Saliou nekkee Rabat moom itam mu nekk poète bu mag moom li mun jaxate moomu di xaritu Senghor ba ma booba maa ngi lycée may ma dem këram fekk mu yónni ma ma ñëw mu ne ko waa yàgg suñ Saliou ku dàq woy mu ne ma ah yow yow nag yow nag Eh, xam naa ne yow eh, sa xam-xam soriwul suñu man bu ma tëkkaleeg si Saliou sëñ Saliou da nga koy tëkkaleeg Senghor loolu la ma leen jaxate wax ci moo tax man wax naa ki fii daawaati jëkk sëñ Cheikh ma ne ko faaw nga liggéey ñu jéem a xool mbooleem di nga xam ne suñu saaliwu mas ko koo woy nga seet ko fu ñu ko denc ñu dajale ko def ko ay recueil wala benn diwaan génn ko ndax poète dëgg la li ma ne nag moom te ni mu wuuteeg borom xam-xam yi ndax boroom xam-xam bokkul ak koo intellectuel sëñ Saliou dafa nekk intellectuel ndax euh, lii waa dëkk bi naan ciy téere ak jàng ko xam ko xam na ko waaye nit jàng nay téere ba ba jeexal ko naan xam-xam yi ba jeexal ko te amul connexion te amul connexion sëñ Saliou dafa connecté woon moo tax bi sëñ bi waxee ne euh, salma chita wax na dëgg parce que dafa aman dafa connecté woon maanaam li ma li ñu tuddee connexion ci xam-xam moo di ne da ngay dem ba peeg mboolem courant de pensée yi am ci histoire depuis les rek ba nëgën ak le courants de pensée contemporains ak choc bi am entre les écoles intellectuelles foofu la sëñ bi toll woon moo tax moo tax foofu loo loolu la rawe woon ñi ma ñu yemaleen àllu ba loolu leen rawe woon moo lañ tuddee dafa connecté woon moo tax <coughs> man ngaa bari xam-xam lool jeexal te yëpp nga ñëw mu laajee loo xamul waaw sëñ Saliou maanaam dama yaakaar ne di gën moo dina jiit ci moom tomb par tomb bés par bés waxtu banam eh, eh, weer par weer ndax lu ci nekk waxtaan la wu dul jeex moom suñu seetlu dem bëgg biig damay waxtaan ak benn sama benn sëriñ mbàkke mbàkke ci sëñ sëñ Saliou même bi ñuy dem ba am lu ñuy wax mu ne ma ne ma gis nga nag jamono jii lañ ko sox gën a soxla ci wàllu diplomatie mu ne ma waxuma diplomatie sax bu Sénégal waaye diplomatie yoonu murid rek actuellement nii ak fi yoonu toll sëñ Saliou manqué nañ radiallahu taala anhu kon nag euh, man dama dama dama man mii ci sama jëm bopp Baay Faal ay Baay Faal la ma yar maanaam sama sama ngo sama fi ma jàngal alquran fi ma yaroo fi ma tarbiyee lépp ay Baay Faal lañu waaye Sëñ Saaliwu radiallahu anhu jàngal na ma loo xam ne ci moom laa ko xamee ci wàllu teggi nag ak jëflante euh, am na benn bés ñu toog ci Rabat mu am ñu mu doon waxal ay boroomi xam-xam mu ne mu wax waa ji mu ne ko euh, daqaatu qalbil mar'i qaa'ilatun lahu innal hayaata daqaa'iqun wa sawaadi ma toog mu daal di ma ne gees gis ma mu ne ma euh, xam nga xam nga li xam nga li ñu wax ma ne ko waaw mu ne ma kooko ko wax ma ne ko ah, xaw ma ko de mu ne ma demal jëli kayit ak ak ak xalima kuy jàng dangay to loo dégg da koy bind waaw maanaam ci yoon li may commencé di bind ci sëriñ bi <coughs> lu ma def projet da ba koy won mu ne ma lee yow dama yaakaar ne li bu fekkee ne lii rek la kon booy ba nga dellu Sénégal toog ma ne mu ne ma xanaa xamoo li sëñ bi laa mel ak ak ak sa maam yeeg sunu maam yi ñoo la ko dàq fop ak sëñ Moussa Ka lii wax nañ ko ba noppi ma yaakaar na yow maanaam orientation yi ma doon defal nga xam ne tey su ma amee gis-gis wala ma am euh, euh, maanaam euh, taxawaay yenn yoo xam ne ci wàllu gëstu dama ne grace à sëñ Saliou moo ma teg ci yoon moo ma won moo ma taxawu itam maanaam man naa wax daal moo ma woomat ci xam-xam kon kooku daal mën naa koo tënk ci li nga xam te ne dund naa ko ak sëriñ Saliou di ñaan yàlla suñ borom ba euh, dolli ko ci fa mu nekk te di ñaan itam Serigne Cheikh euh, euh, jéem a liggéey ci loolu ndax sëriñ bi ay mbindam lu jar a génne la lu lu ñu jare feeñal la lu ñu jara tasaare la kon daal sëñ bi kon loolu laa bëgg na dugal ci waxtaan barkeeloo ko nga xam naa ne yaa ma ko gën a xam waaye nag <laughs> barke da ngaa bëgg a yaatal rek eh, di sant itam sama mbokk mi muy sëñ Cargaan moom daanaka ni mu wax doy na sëkk wax dëgg yàlla kenn mën ci dolli dara wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jan orma lan war a bàyyi xel ci dëkk gi ñu dëkk ak suñ Tuubaa jan orma lañ war a bàyyi xel ci suuf si ñu xamante ni noo ngi jog ci kawam te mu wóor nañu sëñ baa ci biiram jooju lañ loolu lañ war a bàyyi xel Cheikh Ibra Fall nag da wax ni tuubaa dafa jege pays bi te fu ñuy tinoo dee su fa tooñ Touba dafa jege pays bi te fu ñuy tinoo dee su fa tooñ ma bàyyi jàpp ni da ci am taalibe yoo xam ne dañoo amul connexion moo tax waaye yaakaar naa ko leen connecté danañ danañ soppi aw doxin ndax bari na yoo xamante ni ni ku koy dund bàyyiwoo sëñ Touba xel te Moussa Ka dafa wax ni waa jiile Moussa bul fàtte waa jëfa Touba moo la tee faatu moo la tee yalwaane ngal la Moussa bul fàtte Cheikh Bamba ci dunya bu la fàddoo nag saxal ca lam santaane na ko sab xol ni jàkk ndem raw na say bët nun raw na suñuy bët waaye na ko sunu xol di jàkk moo ni ko sab xol ni jàkk ndem raw na say bët mi ngi lay gis te daawuloo seetaane ginnaaw am na yëg-yëg ki ni mi ngi nii gis war na am comportement yoo xamante ni war nañ ko jombale suñu diggante ak moom moo xam ci weetaay la moo xam ci wettaliku la loolu nag bu ko ñëpp dundee kenn deetu dégg ñu ni bàyyi leen nangam wala bu leen fi defati nangam loolu ci lañ bëggoon seeblaat mi ñëwal nu ci ci orma dëkk bi ak sunu nekkin ci biir dëkk bi xam naa waxtaan incha allah daan ko fas yéene ànd ak moom ci luñ ci mën a dolliwaat ci ay taxliqaat waaye ñu bàyyi ko mu développé ba pare incha allah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi allazina istafa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala bu baax di julli di sëlmal ci sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moom ak ay saxaabaam ak mbooleem kuy xeñtu yoon jubam ba bis penc di yeesal sunu jëbbal ak sunu aju ak sunu jàpp ak sunu moy sunu yaakaar ak alaaxira ji nga xam ne yaakaaru na lu dul moom suñu cofeel gépp jeex ci moom takk bu doon suñu sañ-sañ ci moom lañuy ñuy dund ci moom lañuy ñuy ci moom la ñuy dekkee te loolu lañ ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu cheikhul xadim radiallahu anhu ñu tàmbalee nuyoo bi ci siyaara ak cheikh mouhamadul muntaqa di ñaan suñu borom bi nga xam ne dara tawu ko mu yàggal ko fi lool te may ko wér ba li mu yéenee liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp mu def ko ci coobareem te nu ànd ko moom di nuyu suñu kilifa bu baax gii ñu nekk ci ab ëttam muy as Cheikh Abdou Samad moom Cheikh Souhaïb Mbacké radiyallahu anhu moom Cheikhul Khadim di ko sant bu baax te di ko gërëm te di ko ndokkeel ci weer wu tedd bii di weeru Cheikhul Khadim ak jëf yu rëy yu màgg yu tedd yi nga xam ne baaxoo na koo def ci weer bi ak yeneeni jamono te lépp xeeñtu ngërëmu Sëriñ Tuubaa rek tax mu di ko def yàlla na ci daje ngërëmu Sëriñ Tuubaa te yàgg koo woote ñu yàgg ko ci wuj di nuyu itam kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi yépp njabootu Sëriñ Saalixu Mbakke moom Cheikh Mouhamadou Moustapha sëriñ Basiiru ak ñi mu àndal teewal fi sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké di rafetlu lool kàddu yu am solo yi nga xam ne jàll na fi léegi te sunu mbokk mu tedd mi sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguerane ak sëriñ Saliou Salaam jàllale ko fi léegi muy loo xam ne lu ama ama am njariñ ci ndaw ñi la mooy ñuy jël référence yi nga xam ne yoon wi am na ko te ñu mat ci wet wàll yëpp ñu war leen koy jàngal waxtu wu ne di leen ko fàtt di ko fàttali mag ñi waaye di ko xamal ndaw ñi ndax réew mu ne am na ay delluwaayam benn bu teye ay delluwaayam moom di ca delluloo ak njabootam baa mu jël delluwaay jàmbur di ca delluloo njabootam jël ay delluwaayam di ca delluloo njabootam nag mooy tax ñu xam seen bopp ba mën a téye seen identité culturelle te itam mbooleem la eh, yu am njariñ yi nga xam ne askan woowu am nañ waaye ñàkk koy booy ñàkk seen bopp crise de référence yi ñuy wax nii dafa mel ne loolu rek moo ko indi mooy am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko daf koo gën ñun nag dañ koo am waaye li ëpp ñun dañ koo xamul moo tax waxtaan yu mel nii am njariñ lool kon sëriñ Ahmadou lii ngeen wax ci sëriñ Saalihu yaakaar naa li sëriñ Saalihu salaam wax léegi rek mooy li ci war dañ koo war a def ay téere di ko jàngal ndaw ñi ñuy xam ne seenu réew amoon nañu mel nii te bàyyi nañ fi ndono lu mel nii luñ war a dundal war koo dund muy la am solo li ci topp ñu waxoon ne nañ ci sànni ay kàddu lu mu gàtt gàtt muy war may Touba ak war may Serigne Touba jàpp naa ne bu ma ci jéemee duggaat di ci jéem a sànni kàddu damay xajamal li Serigne Ahmadou waxoon léegi waaye li mat a xam te mu am njariñ te ñu war koo def te buñ ko defee mu amal njariñ at ak alaaxira Serigne Ahmadou wax na ko léegi loo ci dolli rek day gën a guddal te bu guddee day gën a jàpp waaye li xew mooy suñ borom day daf koo soob mu sàkk lu ñuy tuddee waxtu sàkk lu ñuy tuddee barab waaye sàkk itam xeetu mbindeef yu bari ci biir mbindeef yooyu nag mu dëkkal leen ci ay barab di leen dunduloo ci ay waxtu tànn na ci biir mbindéef yooyu ñoo xam ne daf leen a togg jëf li ñuy jëf ñu leen ca fay mbaa ñu leen ci fayu ñooñu mu tànn nag ñu di leen fay mbaa ñu leen di fayu fayeeku ay pénalité mooy doomu aadama ak jinne suñu wax ne ñoom ñaar ñooñu bindu leen lu may ngir ñu jaamu ko soxlawul ci ñoom ay wërsëg soxlawul ci ñoom ñu koy jox dara lu mu doon moo leen ko ëppale te moo leen koy jox ñooñu nag su borom daf leen bàyyeek ay xel ñuy yëg bànneex di yëg naqar di yëg coono di yëg it di yëg lépp loo xam ne ay yëg-yëg la yu mbindeef di yëg waaye xam li lenn ci li weesu di yaakaar ne xam nañ lenn ci fiñ tollu di jàpp ne xam nañ lenn ci liy ñëw loolu lépp suñu borom baaxee leen ko waaye ngeen ñu jariñoo moo tax mu jox leen ko kon ñoom nag warugar wañ njëkk war ci ñoom mooy fexe ba mën a jariñoo xéewal gu réy seen borom defal te ñu séq ak seeni moromi mbindeef yu dul jeex yoo xam ne amul yii ma wax léegi doomu adama mi ngi dund ci kaw suuf waaye mi ngi fi dund ak ay bàyyi ma te koo ci nuróole benn ci bàyyi ma yi rek mu jàpp ne xas nga te mbindeef la muy mbindeef doomu aadama mi ngi dund ay malaayika mi ngi dund waaye doomu aadama malaayika suñu borom daf ko bind ci leer mu kawe lool waaye li muy kawe kawe doomu aadama mii mën naa jaamu yàlla ba féete kaw malaayika moome waaye mën naa dellu gannaaw ba gën a suufe la gën a suufe moo tax suñu borom di wax ne nit ñi suñu borom léeg-léeg nga gis koo xam ne ci ñoom su borom daf koy bind ca bindin wa gën a rafet mu àgg fu kawe lool ci ab rafet waaye ci aw meloom muy dox ba suufe ba gën a suufe lépp lu suufe tax na nag doomu adama war nay xoolaat boppam bu baax di seet ak dundam bu baax li ciy dolliku ak li ciy wàññiku ak dund dafa am fu mu tàmbalee am fu mu yem fi mu tàmbalee ñu juddu fi mu yem mooy am na leneen lu ko waaye amul fu geneen dund koo xam ne day ñëw tàmbalee foofu waaye amul fu muy yem te dund gii am fu muy yem ci ngay fàggoo la lay dundal ëllëg dund ga nga xam ne amul fu mu yem kon nag loolu war nañ koy bàyyi xel bu baax nun nag ñu tànn doon ay jullit tànn ànd ak Cheikhul Khadim kon nag war nañoo bàyyi xel lii sëriñ Ahmadu doon wax léegi nan la ñuy ànde ak sëriñ Touba dafa mel nag ne fi jamono toll boo dajale woon ñaar fukki nit tey kenn ku nekk nga laaj ko lan mooy ak murit ñi ëpp te ñoom dañ lay wax ne ni ma ko gisee man de ak taalibe ni ma ko gisee nangam ak nangam ma jàpp nag ne ak moom dafa mel ni Sëriñ Tuubaa moo kon warut a gis-gisu diw sangam waaye gis-gisu Sëriñ Tuubaa la war a doon warut nekk ni ma ko gisee waaye ñun ñëpp dañoo waroon a maase di wax ni. ak taalibe yi nii la ko sëriñ Touba waxe na ko sëriñ Touba waxe jàpp ma ne dañoo war a yem rek ci ne nii la ko sëriñ Touba waxe waaye dañoo war a fexe di ko jëfee ni mu ko waxe ndax nag kenn ku ne ci nun la ko fi ba ëddi ak la ko fi bàyyi moom moo ko wax kenn ku ne ci nun la ko fi indi moo ko wax la ko fi bàyyi moo ko wax ma jàpp nag ne asgor su waxagul moo moom boppam waaye bu xasee ba wax nag kàddoo ko moom dañoo wax ne dañoo jëbbal sunu Sëriñ Tuubaa sunu bopp adduna ak àllaaxira teg ca ne ko loo nu digal danañ ko def loo ñu teree danañu ko bàyyi bu ñu demee nag ba mu yàgg jamono egg foo xam ne dañuy dund la mel na mag doon wax ne ah moom de murit tey jaaxal nañ ndax boo leen digalee ñu def waaye boo leen teree yi ñu def bàyyi daal lañ fa su yéene moom boo leen digalee ñu def waaye boo leen teree it ñu def daa mel ne foofu lañ toll nag foofu nag buñ fi tolloo war nañoo taxaw seetlu bàyyi waat xel nan la ñuy war a wàññikoo dellusiwaat ci ngir bi nga xam ne moom lañu sëriñ bi xàllaloon tuubaa gi nga xam ne mooy ittey waxtaan bi tey ba fi sëriñ Tuubaa di ñëw nii ñu koy faral di waxee ci wolof langage wolof bii gën a yomb rek nga xam ne ku ko dégg xam ko mooy fekk fi woon dara lu dul ab àll ay garab ay rab benn benn déeg déegu mbal déegu nangam guy fukki sér guy nangam yooyu rek ku fi dugg rek lan moo ko fi andi woon des na sañcu dëkk ngir bay des na ko sañc ngir commerce ndax dafa jege géej wala dafa jege aw yoon walla dafa nekk ci barab boo xam ne xëy na am na loo soxla te foofaa ko man waaye dëkk bii nag jenn itte képp képp képp moo tax ñu sanc ko mooy jaamu yàlla ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa kon lépp luy jaamu yàlla ci dëkk bi la gën a yeyee ndax moom dong ko tax a jóg moom dong moo ko tax a jóg mu mel ne dañoo dem ba yàgg yàlla dafa fonk lool jëf ju sell ju ñu jëf ngir moom te dëkk bi da bokk te jëf yu sell yi gën a sell ngi jëf ngir suñu borom tabaraka wa taala tax mu geesu ko bu baax nangu ñaani Sëriñ Tuubaa bu baax xéewal yi ne fi gàñ jamono jafe fépp dëkk bi mënees fee nekk tax ñu bari bàyyi ko fañ ñu nekkoon ngir ay jafe-jafe ñëw ci dëkk bi waaye biñ ñëwee nag dafa am lu waroon a jiitu te ñu xaw ko yeexee tuuti mooy kuy ñëw dañoo waroon a def ab centre de formation ca bunt ba boo agsee bala ngaa dugg ñu formé la ci ni nga fiy nekk rek ki melo ya nga amoon ca fa nga nekkoon solalaat la yére yu méngoo ak barab yi nga jëm waxoon naa ne yàlla dafa sàkk ay barab sàkk ay jamono ci biir barab yooyu mu tànn ci ay barab warmaal leen teral leen fonk leen ci biir jamono yooyu mu tànn ci ay jamono warmaal leen teral leen fonk leen wax sëñ Ahmad wax na ko léegi makkatal mukarrama ak madinatul munawwara ay dëkk lañu ci kaw suuf si waaye suñ borom la soob mu tànn leen ba tey boo jullee ci jumaay madinatul munawwara ñu ful ko junni yoon nga julli ci jumaay makkatal mukarrama ñu ful ko fukki junni yoon eh, subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa lu ca topp allati barakna hawlahu faxala na alayka innaka bil waadil muqaddas kon suñu borom moom la sopp mu tànn ay barab ci coobareem jël barab yooyee def leen ñu tiim ay moroom yi barabam pàkk yooyu suñu borom teral nag teg fi bëtam di ko xool warmaal ko warmaal lu ko tuubaa gi daf caa bokk te suñu borom waxoon na ne lu yàlla warmal na warmal koo gën ci yéen màndarga yàlla yi mu teg ci suuf ci kaw suuf si képp ku bëgg a jege yàlla na nga fexe ba fonk ko te warmal ko tuubaa gi nag dafa bokk ci barab yooyu yi Sëñ Tuubaa tànnal ñu ko waaye bu ñu dégloo rek ci di mag ñi waxee Touba dafa nekk barab boo xam ne suñu borom yàgg na koo tànn def fi lim fi def ña baaxoon ca baawoon it xamoon nañ ne lu baax a ngi fi lu fi suñu borom def waaye ñi ci mënoon a jot nag yombul barab la boo xam ne ñi jege yàlla dañ ko doon xëccoo ku ne ne moo koy moom. suuf si ci boppam tànn Serigne Touba ngir mu moom ñun ñii nag ñu ñëw ne dañoo ànd ak Serigne Touba bàyyi sunuy suuf yi maam bàyyi sunuy suuf yi yaay ak sunuy suuf yi bàyyi ñëw dëkk si ci suufu Serigne Touba si rek waaye suuf si na buñ ñu ñëwee nañu fexe ba. ni mu tànni sëñ tubaa noonu it ñu dem ñu jàpp ne dañoo tànn sëñ tubaa ngir ànd ak moom buñ dikkee nañ bokk ci biir tànn googu suuf si tànnaale wax nañu nag ne mag ñi waa daanañ wax ne am na ab lonku am na ab roq nanu fexe bu buñ ñëwee fu waay mën a fu ñu mën a nekk lu mu sori sori sori ñu lonk ñu andi tubaa te bañ a bañ a bokk ñi nga xam ne buñ ñëwee tubaa ñu génne leen ñii nekk Touba nag ñu dëkk Touba nag mooy ñi tënku ci li Serigne Touba waxoon ne moo tax mu sañ dëkk bi ñaari baat rek doy na cay wax ba mas wa maskanal nanga ma maskanal irsaadi wa tasbi beeg yooyu baax na waaye wa daara ixlaasin wa man jan min bidam wa daara jooju ak wa man jan min bidaa ñaar rek sellal sa diggante ak sa borom ak sànni lépp lu jógewul ci yàlla mooy lépp luñ sos soo ko defee rek yeneen yee jares yépp dañuy ñëw soo ko defee lépp looy def na yàlla tax nga di ko def muy ixlaas loolu nag dafa mat a bàyyi xel lool am na ay façon nag yu xew yu xew yoo xam ne doy na waar te li ko fi indi lu baree bare baree bare bari li ñu doon wax léegi lay ci lay bàyyi ko mooy ñu ñëw jóge feneen ak melo ñu amoon ca barab bi ñuy dugg waxuñu leen nii ngeen fii nekke ñu ñëw lu ñu fekk amuñu fulla yi jéem a soppi ñi ñëw ci suñ ñu bàyyi seen i jikko fekk ci suñ suñu jikko waaye ñun ñoo am ñàkk fay ak bàyyi suñuy jikko di leen fekk ci jikko ya leen jële woon ca barab yi ñu nekkoon loola mooy Touba ku ne xam na ne bi ko Serigne Touba sañcee juróom-ñaari at la fi def dikkaati fi ba ñu génne àdduna waaye biir ñëm fi njëkk a ñooy kàngami yoonu murit tey ñu fi njëkk a yar ñooy kàngami yoonu murit tey barab bu ñu la waxee ne fala sëriñ daam abdourahman loolu liggéeyal sëriñ Tuubaa Cheikh Ibrahima Fall liggéeyal na fi sëriñ Tuubaa maam Thierno Ibrahima Fall liggéeyal na fi sëriñ Tuubaa sëriñ Mbàkke Bousso liggéeyal na fi sëriñ Tuubaa Cheikh Massamba Diop liggéeyal na fi sëriñ Tuubaa sëñ Ibrahima Sarr Njaañ liggéey na fi Serigne Touba sëñ Darou Xasan Ndiaye liggéeyal na fi Serigne Touba ak mag ñu mel noonu Cheikh Ahmadou Ndoumbe kon ñooñu ñooy waa Touba ñooy njëkkoon ñu Touba nañu nat nag léegi kenn ku nekk na jël kenn ci ñooñu teg ko ci kanamam natt ko natt ci boppam xool distance bi am ci digganteem ak kooka nu mu soree rek noonu la soree ak ndax ñooña la fi Sëriñ Tuubaa andi woon wax leen ne leen ku fiy dëkk nii laa bëgg mu mel ni ñu mel noonee kon ku melut ni ñoom rek bokkoo ci ñoom ku bëgg a bokk ci ñoom nag da ngay fexe ba da ngay fexe mel ni ñoom nooy mele ni ñoom mooy xoolal rek luñ daan def nga di ko def luñ daan bàyyi nga di ko bàyyi sëriñ bi wax na ci benn téere nax du xadaayil xaaj di ci nettali koo xam ne dañ koo laaj ne ko waaye yow dafay day ku baax lool doon sang boo xam ne ñépp dañ koy bàyyi xel ci ak mbaax ak njub ak jaar ciw yoon am ku ko ne waaw yow noo def ba mel nii nga mel tey mu ne ko damay xool ñi nga xam ne ñëpp dañoo tegg yoon rek fu ñu jëm ma jaar fa ca des xam ne ñi teg yoon moom ku leen bëgg ku bëgg ku bëgg ku ci bañ a ku ci ñàkk ku ci ku bëgg a ñàkk a bokk ci ñoom rek da ngay fexe ba war leen ginnaaw boo leen wane ginnaaw rek tegu ci yoon kon ku bëgg a dem xoolal ñi jaar ci yoon te bañ a xool ñi jaar ni ma ko gisee ba mu duggee ci yoon wi rek ma ak bi man ni ma ko gisee ba duggee ci yoon la ci yu bari yu ci bokkul dugg amuñu ci gis-gis. te waruñu cee am gis-gis Sëriñ Tuubaa moo ci war a am gis-gis moonu war a wax ni ñii la ñu di ca jaar moom nag li sëñ Ahmad wax léegi wàcc na ndax ñett yii lu ci nekk def na jëf na ñuy gis wax na ñuy dégg bind na bàyyi jëf na ña ko fekke woon gis teg nañ seen bët wax na ña ko fekk yoon sax dégg nañ ñu nettali ko bind nañ ku fekk ku fekkewul fekkewoo ku ko fekkee boo ñu koy gis mbind mbind moom doraaf kon jàpp naa ne kenn ku ne war naa am loo bàyyi xel ci dëkk bi yu tuuti nag lañ ciy wax yu tuuti ndax euh, bi ñuy ñëw lañ doon li ñu jàppoon ne rek ci la ñuy def mudaaxala dañu jàppoon ne benn plateau la boo xam ne xëy na teggi yi ñu war a siyaare ci jumaa ji wala nangam rek ci la ñuy wax ba tax na loolu lañ waajaloon waaye li ñuy moo moo ndi ab bi daal sëñ ca delloo ndigal waaye waajaluñu woon wax ci thème bii te bëgguñoo xajamal introduction bi yi nga xam ne moom la ma du def léegi liñ ci wax tuuti lay doon ci comportement dafa am yoo xam ne dafa tàmbalee xew di ay phénomènes yu bees yoo xam ne xamuñu ko woon ci Touba loola am na ci loo xam ne aw colin la am na ci loo xam ne aw waxin la am na ci loo xam ne ay jëf la am na ci loo xam ne ay melo la colin gi mooy bu dee jigéen col gu gàtt ak gu yaraax ak gu xat xamee su ko woon Tuuba buñ ko xamee barki démb la loo waaye doon doon doon gone daan nga dégg ñuy wax ñu lay nettali ay mag waaye mag mu ñu la cay nettali ba di la wax lam soloon sax dañ naan la mu solub camisole teg ceeb garamb bu muuroo mbaa euh, sëru rabal waaye gàtt gàtt nopp moom bu ñu lay nettali ci njabootu suñu tubaab gi nga même ñu nga fekkewul dañ naa ne soxna Fatou Ndiaye ba mu ñëwee mi ngi jiitalub camisole teg ci garamb bu muuroo mbala mba euh, sërum rabal yooyu ñu la wax ñett yooyu dara amu gàttul xatul yaraaxul bu dee ci njabootu sëñ Tuubaa gu góor gi foto yaa ngi nii ñëpp di jàkkaarloo moom koo ci gis yére yu jot lay sol du doon yu nattu yaayu yaramam du doon yu yaraax te yu yiw lay doon bari nag ñoo xam ne sax boo jàkkaarloo seen jëmm ci photo yow at ya nga leen di jox ba ñuy photo photo boobu àgguñu foofu mën naa am sax at yi nga leen di jox dund nañ ba at àgguñ ci misaal tey boo ñu la wanee photo Cheikh Abdou Samad mi ñu tuddee Serigne Abdou Samad mii da ngay jàpp ne mag mu am juróom-ñaar fukki at ci comportement ak ni mu mel ak ni solo te wa umruhu wakat 30 ans la dund ci euh, kon colin mat nañoo mat naa bàyyi xel lii sëriñ bi doon wax léegi ci dellu ci référence yi mu doon wax ñoom dañoo war a jël doomi Sëriñ Tuubaa ju jigéen def ko muy suñu référence ay jigéen jël doomi Sëriñ Tuubaa ju góor def ko muy suñu référence u góor suñu doom yu góor nga xam ne kii dañuy fexe ba sa sama doom ji naa fexe ba mu nuru soxna Maymunatul Kubra sama doom ji naa fexe ba mu nuru soxna moom itam sama doom ji naa fexe ba mu nuru soxna su waaye sama doom ji naa fexe ba mu nuru Serigne Souhaïbou Mbacké naa fexe ba mu nuru Cheikh Mouhamadou Mourtada naa fexe ba mu nuru Serigne bu boobaa da koy tàmbalee ci col laa toll xool la daan sol moom nga fexe ba ñuy sol lu mel noonu bu ñu toogee ba léegi télévision bi dañuy jàngal modd màggal di jub ñuy def ay émission di génn naan moddu màggal di génn yére yoo xam ne yu xat lay doon walla yu gàtt lay doon wala yu yaraax lay doon ñu ne koy màggali lii nga war a sol yow danga nga jóg ngir wuti far fa nar a ñàkkee ji wala yaas billah te ndamul wut mooy am waaye ndamul am mooy téye da bëgg wut am bëggoo wutul amul boo bëggee te wutoo te wutewoo ko nañ ko war a wut yëpp am dana jafe kon dangay ngay fexe bu wala ñett yëpp kon booy ñëw col gi ngay sol na doon col gu méngoo ak barab ba nga jëm wax naa léegi ci ne barab ak makkatal mukarrama ku dem di aji mbubb moo mën a sol bu àggee da koy summi sol ab armal loolu lañ la fa def law fii itam liñ la fi def la mooy solal séeri séeri yu jot yu yiw yow miy góor ak yow miy jigéen ñëpp lañ boole loolu ji aju ci wàllu col gi wàllu waxin waxin sëriñ bi def ñoo tànnal ñun ay waxin yoo xam ne dañ koo tegginal teggiin baat bi waatu wolof la teggi wiin la tudd teggi wiin nan lañuy ñuy teggee ba nga xam ne doo xaañ wax ji ana diw ñu ne dee na waaw dafa dee waaye moo bu dee baat mu rek doo dégg mukk ñu ne la diw ñu ne dee na yan la ñuy wax na mu gën a teggee nelaw na wàcc na liggéey làqu na fatu na yu mel noonu rek lañuy wax kon teggi ni wax dafa am waaye murit it moomul yu am na lu beneen phénomène bu xew léegi mooy yuuxu yi ñuy def surtout nag ci barabi siyaarukaay yi amul ci mag ñii ñu tuddoon léegi kenn ku ma a toog ñemee toog jotaayu su Tuubaa di wax ka nekk sa ginnaaw di ko dégg war ma jooju lañ joxoon Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa ñu ko joxoon nag moo nekk fii ba tey kon kuy dox ci dëkk bi te loolu sunu borom tabaaraka wa taala moo ko tere woon saxaaba yi ñu di ko def ci kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi loola la Sëñ Tuubaa delloosi woon yaree ko taalibe yi ba mësuñoo yëkkati seeni kàddu ci kaw léegi nag lu xew bu sëñ bi génnee dañ koy yuuxoo mel ne koy yuuxoo ab sàcc ndax loolu mooy merew yi murid war a mel mag ñi ñëw xamoon day yaakaar naa sëñ Ahmadu mii mën na cee indi ay yu bari ci mag ñi àndoon ak Cheikh Mouhamadul am na ci ñoo xam ni seen njaboot gi daan àndal bu sëriñ bi daan dugg wala muy génn ci di ñëw ci ñoom seen taalibe yi ñu àndal kenn ñeme xam sax sëriñ bi mbubb mi mu daa weex wala dafa ñuul dañuy boobu sëgg kenn du sigg di ko xool ki mënta siggi xool ki si siggul xool la nag du du la yoo xoloo am na sax ay baat yu ñu koy de baat yu baax la am na baat nit mën na wax baat yu baax waaye nag baat yooyu man na koo wax tem yem ci moom yàlla na fi yàgg te wér man nga wax mu yem ci yow fekkente ne ñaan rekk a tax nga di ko def yàlla mi ngi koy ñaan noo ko mën a waxee dana ko dégg waaye yuuxu yi lu bees taq la ci yoon bi te lu mat a delloo fa mu jóge woon la waxin yi itam booy sant man ngaa sant waaye sant nag nga ca gën mooy jëf ni sëñ Tuubaa santaane ci màggal gii mooy sant gi gën ci cant yi imalu ala daawuda shukran ñu koy jëfe waaye lu taxaw naan jaay jëf rek ca kaw ca la bokk de jërëjëf ca la bokk waaye doonul ko moom dong di ko yuuxu ca kaw fas da lu ñuy fas ci xol la jëfe ci ay cër sëñ Tuubaa nag jàngal nañu ko ci bis bii ñuy jublu nan la ñuy sante yaakaar naa li yim ci wax yëpp yoo koy wax ci kaw naan jaajëfee ak nangam nangam ba mu bokk ci ba léegi dégg gu ma genn kilifa gu woote màggalu Tuubaa ne ñëpp nañ taxaw ci jumaa ji di joo di wax naan nangam nañuy def laa dégg ñuy wax te sëñ bi it nañuy def la waxoon kon cant lu ñuy def la waaye du lu ñuy yóoxu cant gi am na solo lool baax na lool waaye nañ koy jëfe te bañ koy wax yuuxu rek kon wax ji itam mat naa tegginal mat naa suufeel waaye mat nañu mat na xool itam fi ñu koy waxe ak niñ koy waxe yooyu yëpp bokk na ci yi xew léegi aw defin topp ci wax naa kon colin wax waxin mu des aw defin aw defin itam yu bari soppiku na ci ndax sëriñ bi dafa yaroon ñépp ba kenn sañuta def lu dul lu mu ko digal bu koy bu bu jàkkaarloo moom ak sëriñ bi ak bu jàkkaarloo ak sëriñ bi da sëriñ bi moom képp ku xas ba dugg ci moom foo mën a nekk mu ngi lay teg bët loo jàpp na nag yow boo ko séenoon nee jàkkaarloog moom nii ma jàkkaarloog caméra bii doo ko def wallahi foo mën a nekk ci biir dëkk bi wala feneen foo mën a nekk te di ko tuddoo war ngaa moytu loolu te xam ne mi ngi lay teg nag bari na ay melo am na ca loo xam ne moom la gënoon a bañ ci àdduna mooy ab jaxasoo rawatina jaxasoo góor ak jigéen dëgg moom bàyyeeg coow yeeg rëmbaxloo ji bari na lool lool lool lool te loolu bokkut ak li bi jàngale woon këram gum mën a doon gum mas a doon wala kër kum yar kum mas a doon wala kër kum jur kum masa a doon boo masaan dem daan nga fa fekk ñetti barab benn ba kër jigéen ñi lañ koy wax benn ba kër sëñ ba lañ koy wax ba ca des daara ja lañ koy wax fa la donga yi di nekk ñaar yooyu nag daara ja ak kër jigéen ñi nag kër sëñ bi moo daan nekk ci seen diggante donga yi duñ mën a jël romb sëñ bi dem ci kër jigéen ñi jigéen ñi duñ mën a romb sëñ bi dem ci kër donga yi ndax waxtu wu ne mi ngi leen teg bët jaxasoo xewul woon ci jamonoom jaxasoo nag yàq na lu bari léegi fuñ ko gën a bañe nag yaakaar naa ne ci dëkkam bii la gën a ware te lañ ko gën a bañe te lañ ko war a gën a bañe waaye rawatina nag ci péncam mii rawatina nag ci biir jumaan ji kon defi nii nañ ci moytu jaxasoo bi bu baax a baax a baax a baax nañ ci moytu it wépp melo woo xam ne ku ko gis mën a am loo tuumaal wala loo xebet walla loo yàq lu ñu yàqee deru sëriñ bi ci aw meloom bépp taalibe bu ne war naa moytu lu yàq derub sëriñ bi di ci moom ci melowoo melowoo xam ne bu ñu nee kee mooy murit bi koo ko gis man caa teg genn kàddu bu dul eskay ñi àndoon ak sëñ bi de moom sëñ bi yar leen ak ñi nga xam ne ñoom la sëñ bi jur ku leen fu ñu génne ni sut booy Dakar ak ñoom la ngay njëkk a def mooy soo fi danaan toxit ngir xëy ba gi nga xam ne ñoo nekk ci moom moo nekk ci ñoom waaye da leen di ragal sax tax lu tax wa haysu ma ilaahaka al ahad yaxafka min kaw kullu ahad ragal gi ñu ragal yàlla moo tax fu ñu ne tëll soo fitne tuxit kon ci comportement yi itam war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax kon nañ bàyyi xel ci colin bi nañ bàyyi xel ci waxin bi nañu bàyyi xel ci jëf yi waaye ba tey ci biir jëfin woowu am na beneen benn buñ ci génnewaat mooy doxin wi doxin wi doxin wi it mag ñi de bari na ñoo xam ne bu leen sëñ bi masaan di woo daanañ daw sax di ñëw waaye dawin wa dañ daan am dañ daan fexe fexe ba egsi ci bunt bi ne teg dox ndànk gu dal ba egsi ci moom waaye duñ daw ba egsi ci kawam di ko xëpp suuf li xew léegi nag buñ ne boo toogoon bañ ne suba la màggal nga dem ci jumaa jee gis nañuy seere bu ñu tëbee ci buntu sow bu wut si buntu barab da ngay defe ne ay ay ay kënooy tàkk ci biir ding ding ding ding ding da ngay defe ne lu nekk tey jub sëñ bi nii loolu mooy daw ba xëpp ko suuf murit bu ne war na ko moytu murit bu ne war na koo moytu te bu jëlee yem sax waaye li ba li jiitu woon léegi mooy yuuxu yi ak wax coow li day ànd ak moom kon nag loolu war naa bàyyi xel bu baax war ma ji daal nañ ci jiital col gi bàyyiwaat ko xel bu baax delloo si la na ko sëñ bi jàngale woon dolli ci oh, waxin wi ak wax ji dolli ci itam jëfin yi ak dox yi te xam ne li am solo mooy nit ki su jógee ngir wuti njariñ lépp lu koy may njariñ la war na caa góorgóorlu waaye lépp lu ko mën a xañ njariñ leen war naa fexe ba moytu ko buñ ko dee tënk mooy ay teggin ay teggin ab yar ak i teggin mooy taalibe boo ñëwee nag ci dëkk bi ñett nga fi fekk danga fi fekk ki nga mag fekk fi ki nga tollool fekk fi ki la mag ki nga mag boo dikkee na nga ko yërëm la la sëñ bi wax adabi rahmatu saxir kal abi wal ummi wa tawxiirul kabir ki la mag na ko war maal ki doon sa morom nga def ko ne sa bopp wa jaaxlu mislika ka ko sawa su ñëpp defee noonu jàmm rek mooy am mbooloo nag buñ bu àndee ñoom ñëpp ñu wax ne lenn lañ bëgg kenn lañ jublu lenn la ñuy wuti te waxtu wu ne xiir xiir loo di ci am wala ŋaa xiiroo ŋaayoo di ci am lañ wax dëkkuwul ci ñoom kon nañ mu muñalante ci barabi ziyaara bi muñalante ci doxin wi muñalante itam rawatina ci circulation bi jaaduwutoon sax màggalu Tuubaa ab police di taxaw di mbedd mi dindi kenn ci aw yoon wala leneen waaye murid yi ñoo waroon a am yar bu ñu mën a doxale seen bopp nañ war a doon doxee ci seen comportement bi ñu war a am ak teggin yi nga xam ne moom lañu war a sedd dëkk bi loolu lenn la ci li nga xam ne dëkk bi ci boppam moo ko fépp li fépp la war a waaye am na nag fu mu gën a rawee muy ñaari barab muy kër sëñ ba gum mën a doon kër sëñ ba gum mën a doon buy ñëw mu ne danga ne naa dem kër sëñ ba sëñ ba nag mooy sëñ ba nga yaakaar yow te dem ca te mu bokk ci njabootu sëñ Tuubaa muy ci njabootu boppam gi walla ci njabootu seexam yi mu seexloo leneen la ci topp mooy barab baax muy barab benn muy barabu sëñ muy ba muy barabu kilifa gu baax bu àndoon sëñ bi foofu it dafa am ko war a demee war a njëkk a mooy yéene ju sell akuk gu ànd akuk laab da ngay jàpp yéene yéene ju sell ci sa xol jërul wax ci saw làmmiñ waaye mën nga koo fas ci sa xol boo jógee nga dox ndànk ànd ak yar ak teggin fekk nga sol col bu jot sëkk te yaraaxul gàttul ba nga dox ndànk ñëw ba ci buntu kër bi nga summi say dàll ngir wormaal barab bi loolu nag loolu bees yont yàlla Moussa suñu borom suñu muloo woon na ko ay dàll ci barab kon loolu am na fu mu teg fu wér summi dàll ci la bokk kenn du cappax cappaxee ay dàll ba ci kanamu kilifa bokkul ci ay teggin rawatina teggin yi murit xew na nag waaye ci li ñu war a génne la bokk ndax bokku bokku ci woon boo egsee nga egg suuf ndànk nuyoo ndànk nuyoo moomu sax dañoo war a xam ni nuyoo gaañee bokku ca nuyoo gaañee bokku ca nee nañ la nga saafanteeg joxe loxo téye loxo waaye yow kenn nga da ngay ñëw jox sëñ bi loxo rooj ci dem waaye bàyyi xel ne téeméeri nit a ngi topp sa ginnaaw yoo xam ne kenn ku nekk dafa war a jox sëñ bi loxo boo bëggee nag boo ko joxee loxo bës ko sa morom jox ko loxo bës ko sa ko loxo ko balaa ngoon sëñ bi du mën a bank tàll loxo nañ nañuy woyofal loxo yi ci nuyoo yi nañuy woyofal loxo yi ci nuyoo yi xam ne it bés bu xat la jamono yaat mayewul yenn yaatu yi ba boo egsee doxal farata ñaanlu yeeweeku bu ëllëgee su féex amee boo dikkee loo bëgg a toog ak sëñ mën nga ko toog ak sëñ waaye nañuy bàyyi xel ne sëñ bi ni nga def ba egsi ci moom boo jëlee temps bépp rek loo jël ci temps rek yaa ngi koy xañ ñi ci sa ginnaaw foofu it mat naa bàyyi xel bu baax a baax noonu it la wala bale ci barab yi siyaarukaay yi nga xam ne nit ki day dugg ziyaara génn bu dee barab bi nga xam ne nit ki day ziyaar day dugg ziyaara génn barabu Sëriñ Tuubaa wala barabu yeneen kilifa yi nga xam ne ñoo aju coom su duggee na àgg ndànk sukk ko ñaanal ko ñaan ci barkeem lu mu bëgg ci barkeem ku ko soob agsi nuyu ko ñaanal ko ñaan ci barkeem lu ko soob ñaanal ci barkeem ku ko soob su noppee bu nuyuwaat ko jóg ndànk génn dem bu fa yuuxu bu mu fa raj-rajloo bu mu fa raay ay ay ay ay karoki wéeru ci dénk laal ci ay bunt ak tilimal bunt jàmbur yépp amul benn njariñ bu fekkente ni boo ñëwee ba ci bunt ba ba egsi ci toog ci barab bi ñaan ñaan nga ngay ñaan amalu la njariñ boo génnee di laal buntu ba laal buntu ba du la amal njëriñ bu fekkee boo ñëwee ba egg sëñ bi sukk ñaan sa soxla ñaan googu mënu laa amal njëriñ boo génnee boo raayee buntu bi buntu bi du la mën a amal njëriñ bu la sëñ bi mënut a jariñ dara bi du mën a jariñ te jàpp naa ne nag buñ dee séntu njariñ te dénk bi ñu fi def defaree ko fee ñëw mënd ko ci buntu bi muy cadre bi yaakaar naa ne kon sëñ ba ba ba nga ba nga àgg ci moom du mat a wax. boo ñaanee ba noppi wala bu fekkente ne ci sëñ bi la sëñ bi ñaanal la ba noppi jógal ndànk jaar ci beneen bunt bañ a dajeeg nit ñi ñu doon dugg ci benn bunt bi waaye jaareel ci bunt ba ñu génn ji fa bu la ne damaa samay dàll mënumaa ñàkk a jaar fii boo xante ñii di dugg ñii di génn day andi raj raj loo te raj raj loo boobu mën naa indi ay gaañante bari bi siyaarukaay yooyu itam jàppalante fi ci wàllu ay xéewal baax na lool waaye nañuy seet liñ koy defee waaw nañuy seet niñ koy defee nit ñu fay nekk bu dee ci bunt kër sëñ bi la rang yi dugg di siyaare sëñ bi bu dee ci buntu barab yi ñuy rang di dugg di siyaare sëñ bi am na ñoo xam ne dañuy ñëw di joxe ndox baax na lool waaye nañu bàyyi xel ndox mi ak karo kenn mbuusu fukki dërëmu ndox nga xettali ci nit damm ci tànk juróomi nit amul njariñ nga xettali kenn nit damm ci tànk juróomi nit amul njariñ lor ja day daal di ëpp njariñ la nañu bàyyi xel ni ñu koy def ndax ki nga jox mbuus gi mu naan te jamono yi am teg sagoom bu nopp mu noppi sànni ko mbuus googu bu ci nit jógee rek day dem bu demee day daanu bu dee karoo day dem keneen ñëw jog ci daanu dem kay ñëw di leen xett li ñoom ñaar fekk ndox mi am na bu tóor woon fi muy téyee kaw ko ñoom ñaar ñu ànd dem jël yi mel nu kenn xamul day baree baree baree bare surtout jumaa ji bu dee ci kër sëñ bi itam même bu dee ci suuf mbuus bu defoon ndox bu tegee nii suuf sax boo jogee tànk day dem kon da ngay doon dimbali far dimbali wàkk am ci yooyu nañ koy bàyyi xel bu baax indi ay ñam joxe ko baax na loolu waaye nañ xool fi koy teg ak fi koy taaji bu dee foo demee ne barab yi kilifa yi ñi ci ëpp dañu leen a karale boo indee diw lu def diw teg nit ñi kenn ku nekk dugal loxoom génne dara tuuru barab ba dee daal niin bu xasee niin ku joggi tarxiis ba léegi jënd yi day day yomb am kon joxe ñam baax na lool waaye na euh, joxe ndox itam baax na lool waaye nañ xool méthode bi ñu koy defee ba du lor kenn butéel sax moo tane mbuus ndax butéel xëy na ku ci ku ci jog it mën naa bañ a dem tëll ji sax mën na laa tax nga gaaw a teg ko waaye mbuus nag moom day dem boo siyaaree ba noppi itam boo ñëwee itam di siyaare si sëñ wala ngay siyaare si barab bi waxoon naa léegi ne ki ngay siyaare si na la doy bul te dolli nag leneen bul siyaare si bi ba noppi génn romb tàndarma di ko wër day gën a xatal wër loo muñ nga tàndarma dañ laa siyaare bi loo sëñ wër kaaba ga lañ lañ la suñu borom wër loo waaye boo demee Makka booy wër kaaba ga ngay wër waaye booy siyaare bi barab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay dem siyaare bi kii boobu ñëwee barabu Cheikh Xadim lañu siyaaraloo wala kilifa goo mën a siyaara ji guy dund bu mën a doon siyaara ba nag da koy fas yéene dolli fas yéene suñu borom jéggal la say bakkaar ci lu baax fas yéene say bakkaar fas yéene itam tàggalikoo ak lépp lu bon soo indee loolu toog ci kanamu sëñ bi ne xool sëñ bi sëñ bi xool la doy na sëñ Tuubaa ne woon ne benn xoolu sëriñ bu mat ab sëriñ ci ab dongaam ndonga la aajoom daf ci fajoo fa nasratul xubbi min alcheikh ila muridi yi hiya almazaya wal ula buuxante bi jëru ko ba si loxo yi jëru ko yooyu yëpp jëru ko da gëmal ne boo jàkkaarloo ak moom rek sa aajo faj waaye nag la la koy tax a mën a am ci yow lay doon boo ñëw nag nga andi pas-pas boobu waaye ñëw naa man kat dama am téel ma sama appareil bi su may nuyu sëñ mi nga foto ma su may nuyu sëñ bi nga sinam ma su may nàngam nangam yow photo ak sinap nga doon wut si am nga ko jeex loolu nag jàpp naa jërul taalee oto Ndakaaru wala Kawlax wala Ndar ba egsi fii buuxante ci naaj yi sonn rang bay bëgg a jàpp naa ne man nga faa am lu ëpp loolu ñëwal si Cheikh Amady Samara siyaara ko ngir jëmmi Sëñ yëkkati sa dee jox ko tàllal say loxo mu ñaanal la saa aajo faj boo ko defee saa aajo faj loolu yooyu yëpp ci war may la bokk. bokk na ci itam nit ñi danañuy faral di dem ci armeel yi di fa armeel yi góor lañu sàkku ci moom muy dem ci ay armeel waaye jigéen ñi ne kenn sàkkul ñuy dem ci ñoom ci ay armeel rawatina nag fii jamono toll nga xam ni su bis yu mel ni jotee armeel yi la fay dooni jigéen mooy ëpp la fay dooni góor jaxasoo góor ak jigéen foo ne la bone waaye ci ay armeel la gën bone ñu ko moytu bu baax a baax ki dem ci armeel yi nay moyti di jog gi ci kaw bàmmeeli jàmbur yi jëm ci sa war sa sa barabu baay wala sa barabu yaay jog gi ci barab barabu bàyyi jàmbur wala yaayi jàmbur ay teggin fekkiwu bu dee yu bees yi am na ay yoon yoon yi lu xat xat xat nañ def ndànk jaar ci kaw yoon te bañ jaar ci kaw nit ñi di jógee kan pàcce bu ñu agsee nañu toog ndànk egg suuf ñaanal leen booy dugg ci bunt bi jax fa nga war a njëkk a ñaanale mboolem koo fekk mu tëdd nuyu leen te ñaanal leen loolu nañ ko santaane nuyu leen te ñaanal leen door a jàll boo agsee itam ka nga fekk ka la taxoon a jóg mën nga koo nuyuwaat ñaanal ko boo noppee nag nga gën ndànk bàyyi sa moroom mu ko waaye yandu fa di coow di xërëf-xërëf metti na lool te ñaaw na lool kon nañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax kon daal ci tënk Euh, waxoon naa ci tàmbali bi ne doonutoon lu waajal li ma jàppoon ne fi la ñu fi laay fi laay rek man su ma egsee bokkul ak li ma sëñ bi sant parce que ñëwuma sëñ bi sant ma dara ma li ma li ci teg benn baat waaye maa ngi leen di ñaan ci seen baax lépp lu dëng ci wax bi ni ngeen ko jubbantil ba jub te xam ne ju rek laa ci bëgg lu baax rek laa in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëriñ bi mu ni kaamil bi bismillah waaw bismillah waaye dañoo wut daf bi mu ni kaamil bii da koy jox suñu Abdul Ahad Buso mii nga xam ni jëwriñ la ci Muxaddamatul Xidma li ñuy wax décoré wala jaajëfal te murid yépp la koy defal ndax waa xidma dañ fa nekk nekk fa murit yëpp lañ fay def murit bu ne boo sañoon yaa koy defal sa bopp kenn la ci ñoom boo ko jaajëfalee jaajëfal na waa xidma gépp te moom mii jàmbaar la ci ñoom kon nag neel suñu affaire ci turu sëpp suñ tuwaay yëpp ak bokki suñ tuwaay yëpp ak taalibi suñ tuwaay yëpp ñu ngi leen di jaajëfal yéen waa xidma te di leen nangul seenub liggéey te xam ne yéen a nga fa waaye murit yépp ngeen fa nekkal amul la ëpp alxuraan moo tax mu foofu alxuraan ji jox la ko feeñal ci mbégteem am mbégteem murit yépp jërëjëf ñu tàmbale woon na waxtaanam ci ormay dëkk bi muy Touba di dëkk boo xamante ni nii borom bi mu koy sanc jaamu yàlla rekk tax mu sanc dëgg la fu ne doomu aadama ne di yëngutu yooyu yëpp sëriñ bi bàyyi woon na ko xel ba na fi teen waxoon na fi mag ñi fu ñuy yaxantoo yooyu yëpp mooy xamaale doomu aadama li mënta ñàkk ci moom waaye nu waroon ca boole jomi nag li taxoon mu sañ dëkk bi muy jaamu yàlla moom kenn du nu ko soññi loolu moom war ko war noonu ko tëye bu baax a baax ndax looloo taxoon mu sañc jàppale sëriñ bi itam ci ab joxoñam ndax bi muy sañc dañuy Touba wala Daaru Salaam Touba Daarul Xuddus Daarul Rahman daarul minnan daarul mannaan daaru alimil xabir yooyu ay joxañ la dañ ko fa ni ñukk ñëw ñaan ñaari pëna kafteer ya neew ya der ya nun déggunu suñ tubaab de te loolu ab tàmbali la woon boo xam dañ ko war a àggale xaw ma bàyyi nañ xel li may waxoon la de ci orma ji ñu war a séq ak moom ndax li mu waxoon mooy ujaddidu tawxiida wal furoa loolu rek moo doon ab liggéeyam kon war na noo bàyyi xel bu baax a baax dundal sunna te rey biddaa loolu nag daa mel ni sunna la ñuy gaañ ba pare bëgg a dundal biddaa loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax mu bari ci itam ci phénomène yu bees yoo xamante ni yoon wi xamu ko woon te mi ngi dugg si te gone yi mujj ñëw dañuy jàpp ni ci yoon wi la bokk te bokku ci rek la yoonu sëñ bi nekkul ak koo ci mën a seen mën a ca yoonu sëñ bi newul Seex Abdu Xaadir nag daa waxoon ni sëñ bi moom ñett koy wut waaye kenn koy am nee na ab dafa koy wut ak nit ak nit ku nite nee na dof du ko am ndax day def ba def lu mët a def mooy ji yu xew ci yoon wi léegi nit loo ko wax da koy natt ci am xelum boppam su ko mënu ni la loolu kenn mënu ko waaye nee na nit ku nite nag day seet la mu war a def mu def nit du seet la nit ñay def ma di ko def nit day xool li mu war a def mu def te bari na ci yu seeb la tudd yoo xamante ni ñun ñëpp noonu ciy teg suñu bët te mag ñi xamuñu ko woon mars yi xew ci dëkk bi ay gone yu defum ndiiraan yor seenu banderole naan dañuy mars fuñ jëm kan lañuy ñuy marsal dañuy sant Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa noonu lañ koy sante loolu phénomène la bu bees gone yu àndandoo defum riiran jërëjëfi suñ tubaab juy riir te yow sa yoon ci waxtu farata li sëñ bi digle ci jëw xaru na fii sawdu sixaar sa yoon nekku ci yooyu mat naa xoolaat colin woo xamante ne ni kenn xamul mot du colin wan la fan la nu toppee kenn xamul yu bees la yoo xamante ne ni dafa dugg si te gone yaa ngi koy sol ay jigéen ñoo xam boo leen séenee da ngay defe ne ay gone yu góor lañ ay caayee sol sol ay jamput la tudde seen bopp ay tur yu bees yoo xam ne kenn ku ci nekk tur wala sa bàyyi tudde woon moom wàcc nga ko wala dagg nga waneen tur wu ni toll tafaat ca boo xam ne kenn xamul foo ko jël yooyu yëpp fi mu doon yu bees la te lool du ak murit ak murit du ay waxi kese pas-pas la ak i jikko yoo xam ne sëriñ bi daf koo jàngale du nuñ ko déggee noonu ni ko sëriñ bi bëgg la du niñ ko déggee de Sèye Blaat wax na ko ci biir waxtaan wi ni léeg-léeg da ngay dégg na gars yi koo ci doon laaj danaa en tout cas ak murit moom ni ma ko gisee ni nga ko gisee baaxut ni ko sëñ gisee la te sëñ bi da koo waxal boppam fu mag nekkul ay waxam ko fa la nañ dellu ci mbindam sëñ bi moom néexut a tuumaal layal na boppam bu yàgg yàgg ndax bind na wax na jëf na am na njaboot buñ koy askanale ñu tuddalee ni doom am na mag ñoom yara boppam juróom ñi kenn weddiwu ci morom ji juróom ñi suñu wute woon nga ne ah gars yi man damaa jaaxle ndax ñii man xaw ma ko ma ciital waaye juróom ñi kenn wedduwu ci morom doomi sëñ Tuubaa yi mu jural boppam ñoom seen bopp niroowuñ waaye ñoom ñëpp seen bàyyi lañ niru ñoom seen bopp nag niroowuñ waaye ñoom ñëpp seen bàyyi lañ niru yooyu daf ay settantal la yu mat a bàyyi xel leneen li ci des mooy sëñ bi daa takk aw say muy juróom mu lim ko mu dénk ko yàlla mat naa bàyyi xel nafsi wa diini suma ahli walwalat wa nii juróom mu dénk ko yàlla te kim ko dénk ko mën a sàmm xoolal delluwaatal ca ca jàmm ga nga jël ci ay analyse yu ndaw yoo xam ne da koy tertu rek bu ne si sëñ bi dugg ci loxoy tubaabam tubaab yi ñu ànd ak moom ci juróom-ñetti at ci géej gi juróomi ati gànnaar wala ñeenti ati gànnaar juróomi ati ceen fukki at ak juróom njaareem fanweeri at dammut sooxut laggiwut amul fenn fuñ ko xusi foo xam ne manees na ko wade kon ki doon sàmm ñoŋal na nafsi diini diinam dara dara dara dara lu ci tubaab yi mën a wax ci lenn ñu karfati ci diinam lu xamante ne ni mos na amul lam an fa la wax maalam yafidi musta jublu sax lu amul njariñ waxante wala def la neen loo xam ne noonu la lu amul njariñ mosu koo jublu moom lam an ko maalam yafidi loo kon mat naa bàyyi xel ci ki doon sàmm ki sàmm la bëgg ñu bàyyi xel kii sàmm ndax nun nu mën a mooy tëndiku mu teg ca nafsi wa diini suma ahli muy njaboot njaboot bi damay wax ni yonent yàlla Moussa ab yonent la Haaruna ab yonent la Moussa am na xalwa diggam ak boroomam bàyyee Haaruna ak njabootam ñeent fukki fan dellusiwaat fekk ñuy jaamuy xëram sëñ Tuubaa bàyyee na yoon wi juróom-ñetti at dem si dikkaat ñun fi bàyyi woon mokkal alxuraan bindu kaamil yónnee ko taalibe yi gën a dolli ko seen pas-pas gën a yéeg seen yitte ci seen bërëb borom gën a kawe rab rabbi asaabaka bil himma la wax de seen yitte bu delloon gannaaw bu dikkee fa mu leen bàyyoon du leen fag kon ki doon sàmm mën naa sàmm mu teg ca wal walal doom yi genn doom juñ ci laaxan gannaaw mu gàtt la leen jox rek dama leen sëñ Abdou Khadir ka ko génne biir këram jëm seeg moom ca teen ba kii sàmm mën a sàmm waaye sëñ Abdou Khadir jëfewut nee ko naqaréwut a cib teen ndax diisul teen ba amul couvert Cheikh Bukhari diisut te amutu bañ naqariwut a dugal ca teen ba ka doon sàmm moo mën a sàmm yàlla la sóobul yàlla moom yi la sëñ bi dénk dëkk bi ku bàyyiwul xel kiy sàmm war a mën a bàyyi xel sa bopp ngir mën a moytandiku te xam ne kii sàmm moom li muy sàmm dana ñëw moo tax mu mat a bàyyi xel bu baax a baax dëkk bi ab dëkk la waaye dëkkub sëñ Tuubaa boo xamante ne ni mboolem lim fi ñaan boroomam lépp suñu boroom may na ko lépp nag lu sam xel daj ak lu sam xel dajul damay wax ni may gi moom ndax sëñ bi sax xam na nu may gi toll jàpp moo ndax may gi rëy na li gaal gi àttan moom dee su ko wax waaye nun war na noo xam dëgg nan la ñuy mën a moytoo ba mën a jariñu ci sëriñ bi te bàyyi yu sew sewaan yi nga xam ne noo koy ràbb ci sunum xel mu jub lool te dëppoowut ak dëgg seytaane dañuy nax rek saytaane nag day mbër moo am doole te bari kàttan te bari feem te saay-saay te ni muy yàqe bul suñ borom dimbali doo ko xam iblis dañu daa fekk kuy julli fekk kuy nelaw mu yor wantaayam di upp kii nelaw am ci góor yàlla yi koo gis ni ko yaa bari caaxaan kii ngi nelaw amoo soxla ci moom ci julli amoo soxla ci moom xanaa di ëpp kii nelaw mu ni ko noppi li may def xamoo ci dara gis nga kii nelaw borom xam-xam la bu yeewoo julli gi baax kii julli gi yàqu na bu yàgg waaye mënu koo defar kii lay bañ mu yeewu moom lay ëpp bëgg mu yàndoo foofu la jamono toll ci ak yàq moo tax nit ñi seenu yëngutu bari na waaye li am njariñ ci yëngutu bi moo néew ndax dañ koo tegut ci xam-xam ak bëgg rek la ñuy te bëgg gu ante ko xam-xam yàlla kenn du ko làmbatu ku neex àndal la waaye ku naqare àndal la nag ku neex àndal la ndax daa santaanewul lu su mënut ku naqare àndal la nag ndax lim la sant day bëgg nga defe ko nim la ko wax li ci sell rek moom li jëf ci am solo waaye yii bees yii xew moom ku ci mën a wax bay boo nga wax ci te xam ni amut njariñ daf ñuy tardel rek muy riir moo xamante ni nii amut benn njariñ ay góor ak jigéen yoo xamante ni nii daanaka bu ñu dugg ca barab ba da nga naan ñii ndax bàyyi nañ xel ki ñu jëm dañuy wax ni sëñ Matar Jëbu daa ñëw Touba dellu Daaru Mooti borom daaru ni ko ana ana mu ni ko ño nga fa mu ni ko noñ def kooka mu ni ko góor ñaak jigéen ñaa ngay yaale mu ni ko ñu ngay def lu mu bañoon man de ba ma ko fa defee laa fa gëj kon mag ñi warmaaloon nañ sëñ bi bari na ci mag ñoo xam ne musuñoo ñemee dugg ci biir barab bi dañ koy dànn juróom fukki mètre taxaw ñaan wëlbati waaye ñemewu ñemewu ñemewu ñoo àgg yooyu yëpp mooy orma ji nga xamante ne ni moom lañ am seen diggante ak sëñ bi moom lañ doon bañ dara mej rek ndax nit ñaari lu mu miin yeb ko lu mu miin rek yeb ko sëñ bi nag nii nga xamante ne ni noonu lañ koy dunde léegi tax na orma ji waroon a dox suñu diggante ak moom bari na ci loo xamante ne ni nun ñëpp xam nañu orma jooji mi ngi wàññi ko bu baax a baax te teewul bëgg gaa ngi fi nag waaye orma ji moom mi ngi wàññi gis nga sëñ bi turam yu bari yi du dara lu dul mag ñi dañ lay wan rek warma ji ñu amoon ci moom mooy turam bu mag yi toujours dañ koy warmal daam ak sang ak seexu nag tedd ak yooyu yëpp mooy warmal turu mag yi rek a taxul ñu di ko warmal warma ji ñu joxoon sëñ bi ci boppam moo tax ñu di ko def loolu dafa mat a bàyyi xel bu baax a baax leneen bi ci des mooy sëriñ bi moo gën a xam lu baax màggal la tudd màggal disuit safar moom la tudd kon moo nu gën a xam lu baax kon yeneen yi ñu ci wane yépp ci ak wane ak xërëg yooyu ak ñàkk xam la su doon loolu amal njariñ dana nu ko wax sëñ bi desee lu nu dara ci lu baax lu mu nu war a wax la ca seenum xel ak gut nga xam ne suñ doole mënu ko sëñ bi fàggu na ko lu jiitu ndax bari na mag ñoo xam ne daf leen waxoon ne leen ni Touba bu ma kenn laajati ñaan goo fa yóbbu ñaan naa fa luñ nangu te booba kenn nekku fa kon bari na lu ñu fàggu ci barab bi loo xamante ni nii fii du fi feeñe parce que fii dadul barab bu weerukaay yu jëf ëllëg lay doon ni sëñ Salim bi doon waxtaane léegi dafa waxoon lu am solo sëñ sooy bu ba sëñ bi di ko yëm da ko ni sama kër gii ci kër Sëñ Tuubaa gi la bokk moo tax mu ne ko duma fi ñaan duma fi suul dara ndax woo na ma ni fii la sëñ bi doon taalif fi faw sëy ni te naa ne aw sa faw sëy ni boobee wareewul kon mooy loolu rek ñaan naa fi luñ nangu te booba kenn nekku loolu la ko wax kon mat naa bàyyi xel ci orma nun nag lu bari naagu lu nu ko yóbbee mooy jage guñ jage yëf yi toujours damay wax ne ab jénnéer ka ne ca biir néeg ba du ko gis waaye mat naa bàyyi xel bu baax a baax waaye àgg yombul gis nga dugub buñ koy jëlee ci kër gi di ko yóbbu ca tool yi bi ñuy natt di def ci leget gi am na fepp yu des ci suuf yoo xam delluwut ca saako ba ñëwut ca leget ga loolu yéene ja ca borom amoon amul daa bëggoon mu àgg ca tool ya te demul lañ yóbbu ca tool ya teg ko ci taatu machine bi di tibb di def ci bi machine bi di di faraasu na ci loo xam ne demul ca machine ba dellu si waatu ca leget ga ca diggante ba loroon la nga xamante ne dem na ca tooba ga ba sax jotee lépp saxul kon loolu ëggul ba mu saxee ba pare itam baykat ba da caa toppaat di wolli lam dagg loolu ëggul ñu dem ba gub yee commencé focc di am dugub am na ci loo xam ne picc yee ko lekk demul ci sàq ma ba ñuy góob am na ci gub yoo xamante ne ca yoon wala rot ba ñu lippi agul bañ demee di bojj am na ci yoo xamante ni nii fañ doon wàllee ca sàq ma fa la des am yoo xam ne bañ ko yóbboo ca kër ga di ko du soq ca soqukaay ba fa la des am yoo xam ne bañ ko yóbboo ca machine wal ba di wal ma nga des ca machine ba bu paree dañ koy bale dem tuuri ko am ci loo xam ne ba ñuy tey ca indi ba la des leen la soxla ci cin na dañ koy booleeg raxasin ma dem loolu aggut am na ci loo xamante ni da lekk ba pare defe nii léegi àgg na am na ci loo xam ne booy galax ni ko muy génnaat àgg yombul nañ gën a sellal li ñuy def nañ bàyyi yàlla xel sëñ bi jataay yi muy def yépp loolu rek la ci bëgg mooy nu xam ni li ñuy def bu sellut yàlla amu ci soxla sëriñ bi yoonam nekku ci sëriñ bi moom lu sell rek lañ koy def loolu nag lu war a tàmbalee ci suñuy jëmb kenn ku ci nekk nag koom ci wéetaay natt sa bopp nag dëgg dëgg taalibe sëñ Tuubaa bii may tuddoo man naa xool sama diggante sëñ bi nag jàmbar sama bopp sama biirum néeg lay tëj def ko muy sama bàmmeel ma xoolaat saa bopp xool jikko yi ma baax le xool yi ma bon le te sama bakkan teg ma ko ma jéem ko dindi su yo baax ëppee ma julli ñaar rakka sant ko suñu borom su fekkente ne la mën a ëpp ma julli ñaar rakka tuub te fas yéene bu ma xëyee la weesu woon moom du ma du ci demaat noonu lañ war a jàppale suñu bopp ci jubbanti te liggéey la ko Sëñ Tuubaa waaye waxi kese rek bariwut njariñ te li wér te wóor mooy man ngaa nax nit ñi man na maa wax fii ñëpp ba ñëpp tudde ma murit saadix waaye man maa nax saa bopp maa nax yàlla man ngaa nax nit ñi nag moom trompé leen parce que seet nga gis koo xamante ni moom wax naa wax ba trompé nit ñëpp maam ni ko nit ñi jàppe moom wóor na ko ne ni ko nit ñi jàppe bokkut ak ni mel moom xamal na ko boppam ndegam yaa ko xam nag asmaak yàlla daa am ko mos a bind ab kaamil ba mu fee ceex mu bind ca turam ñëw jox ko sëñ bi bi mu joxee bi kaamil bi sëñ di ko ubbi ba yem bi ni ko lii nag mu ni ko damaa bëgg ku ci ku ci yemati xam ni maa ko bind ku jàngate bi ak si xam ni maa ko sëñ bi ni ko waaye yaa ko bind mu ni ko maa ko bind mu ni ko waaye xam nga ni yaa ko bind mu ni ko waaw mu ni ko yàlla xam na ko mu ni ko waaw mu ni ko ñaari xam-xam yooyu bu la doy dara ma tuccee doon jëru ko li ñuy def nañ ko séeréel yàlla doon ko defee rek te xool suñ digganteeg sëñ bi mu leer waaye daal sëñ Abdoulaye bi wax na fi tomb yoo xamante ni yëpp mat naa bàyyi xel comportement yi mat naa bàyyi xel waxin wi mat naa bàyyi xel colin wi war naa bàyyi xel bu baax a baax siyaarin wi muy demin wi ca jumaa ja ak keneen bar bi siyaar yi nga xamante ni moom la dëkk bi laaj ndax boo ubbee sa nopp bi jox ko waa biti bi bari na lu ñuy yàq ci lu dul noonu loo xamante suñu comportement rek la waaye Sëñ Tuubaa moom yëbuluwul ci ñun rek la loolee nag la ci sëñ Cheikh Mbacke daan wax rek daan tuuma ñaar dong la ji nga def ak ji nga deful ji nga def soo ko bañee bu ko defati ndax yaa ko def boo bañee ko wax rek bu ko defati ndax yaa def ji nga deful nag bu yàlla wàccoon nit defoo ko sa yoon newu ji kon nan yëma laxa sooywaat bu baax a baax xel barab bi muy Tuubaa ji nga xamante ni moom lañ suñu borom dogal nuy dëkkaale sëñ bi nu dëkk ak moom yàlla dogal itam nu doonu njabootam te mu nangu noo jaboote nu am loo xam dañ koy rus jombale ko suñu diggante ak moom loolu kenn ku nekk ci ñun am nga ci wàccuwaay am nga ci itam taxawaay bu mat sëkk boo xam ne sa jëmm nga koy tàmbale mooy bub bi ñu doon wax rek man leen buub bi baax na waaye nañ njëkk buub xol yi ba pare door a génne mbalit mi ci biir kër yi mbalit mi ci biir kër yi moom ja génne ko jafewul waaye xol yi ci boppam moo wata nuyu xol yee salte xol yi moo bari ay taq-taq te yu ci bari bakkananu ko teg lu seytaane de saytaane tegunu ko ndax na jeyta man bi taallaqo min a sayatini fa sëñ suñ waa moo moo wax waaye gars yi dañ ko fay bàyyi laaj loo wax ñu la loolu seytaane la musal nga mboolem ñi aju ci man léegi nag da ngay seet kon kon sag aju daa wérut wala boolewoo sa bopp njabootu sëñ bi ginnaaw sëñ bi nee na musal nga mboolem koy aju ci man ci sayaateen sayatin yi saytaane yi moom ju jinne fi am wala say wala yu doomu aadama te mi na sayatin la wax maan ñoom ñëpp delloo suñu borom ak cant léegi bu la saytaane gàllankoore da nga koo tuumal waaye loola dal sa bakkan na la ko teg te mag ñi sax dañuy wax ne saytaane mooy saytaaneef rek saytaaneef da ndax da nga fa bàyyi lañ la tànnal tànnal sa bopp loolee nga sa bopp musiba mu la dal moo la ko yóbbu mooy saytaaneef mooy yu bari yi nga yi gaa yi boole ci yoon wi te bokku ci yoon wi moom lu ci baaxoon borom takk na ko mu doon doonu say cam langal yi ñu des yëpp dara bokk ci ak koo ca mën a séen xamal ni bokku ci comme mën a doon rek bokk ci li ñu trompé nag mooy diwa nga ca wala diwa ko jiite nangam ak nangam na ko daw jiite toxut mu bokk ci loolu dafa mat a xam nit ñi da ngay am fulla am fayda ci sa bopp mooy xam li ngay topp ba na leen luñ ci rax lu dul noona nga man koo xam borom darul mooti day jiite jamooj am ku am ku ko sàbbaal bi mu sëlmalee mu laaj ku ma sàbbaal ñëpp ni cell mu laaj ñaari yoon ki ko sàbbal door ni ko maala la ba muy dem ci kër gi mu ni ko nan dem ba mu demee mu may ko mbubb ak tubéy ak mbubb mu mag mi ci kaw daal ni ko digal naa la yow bul toppati ci gannaaw ku dul juum diggal naa la yow bu toppati ci gannaaw ku dul juum mu ni ko lu tax nga xam ni daa juum mooy li muy def da koy xam mooy tax bu juumee nga xam ni daa juum waaw mais nit bu ngeen àndee te li muy def xamoo ci dara bu juumee da xam doo xam ni dafa juum yëf ak daanukat lu leer naññ la loo xam ne sëñ bi ci principe yu leer naññ la ko teg ujahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan xadiman wal muhayminu shahid lu dul xam-xam bokku ci li nu dal lépp nag loolu rek moo nu ko teg mooy ñàkk a xam ba pare bëgg a layal suñ ñàkk a xam ngoog yi teg ko ci kaw daanukat kon nan jël waxtaanu Sëñ Abdu Lahat wi te fas ko yéenee jariñoo murit nag loo leen mën a wax lu mu baax baax dañ naan fett su rek naan est-ce que Sëñ Tuubaa amul morom sëñ Tuubaa bi mu amul moroom ba pare léegi nun ñu ko topp nag léegi ah après nun nun ñëpp xam ne ni amul morom mais nun ñu ko topp nag léegi nun lan mooy suñu wàccuwaay wala ci sëñ Tuubaa amul morom jooju lañ jàpp ne ci lañ war a war a gën a ñi ci des déedéet bu suñu jikko yi baaxul taxul ñu gën kenn sëñ bi bi muy ñëw defar jikko ko tax a jóg suñu jikko yi buñ ko mënta soppi mëntu nu koy àndandoo te faaraxtu iblis la waxoo jami al mafasid nag dama tàggoog iblis ak lépp lu bon moo tax man leen képp ku bokk lu bon topp ci gannaawam di ko woo du la wuyu ndax àndu boo ko woo du la ndax àndu tey waxoon na lu leer di la àndu na tey nee woon képp ku bëgg dëkk dëkkuwaay boo xam ne doo ko toxooti ba àjjana dëkk ak man ba àjjana dëkkal ci ndigali suñu borom yi maskanul xadim loo mooy sama dëkkuwaay boo xamante ni duma ci jóg ba keroog mooy tàbbi àjjana ku bëgg a dëkk ak man te dootuñu tàggoo ba àjjana dëkkal ci ndigali suñu borom yi yow nga fas yéene léegi li yàlla digle doo ko def ba pare bëgg ko layal Sëñ Tuubaa amul morom ak bu ñu waxee nga ni duma dugg saxaar yàlla samay bagaas ndax yaa ngi ci biir saxaar bi est-ce que yaa ngi ci biir saxaar bi sëñ Sonia ba daan wax lu am solo daf daan wax ni àdduna daa mel ni marax ñu taalub séb gunóor yi naaw wut si ko ñu jox la mbalaan ni la ëppal bu ci ganaar gunóor tàbbi nee na kii ëpp moom du noppalu ndax dañ ko bu ci gunóor tàbbi ñooy sëriñ si waxtu wu ne ñu ngi woote ñu ngi créé daje ndax bëgg nit ñi yow bëgg ñu jaamu ji yàlla bëgg ñu bàyyi caaxaan yi ak foyi te dëgmal suñu borom loolu rek la mooy seen yitte waaye nee na gunóor bu ci dëgër bopp ba daanu ci sëb bi nag sa bopp nga koy def loolu na ngeen ko xam moom kii moom du noppal waaye gunóor bu ci daanu dëgër bopp ba daanu ci sëb sa bopp nga koy def fayum róor boroomu jur a koy def waaye kii yow jur ga ca naaj wa xontut waggut ba la ko yaram yatam léeg-léeg bu ko rombee ni tépp loolu ci jur gi la yam borom jur gi du ko yëg nañ bàyyi xel bu baax a baax de li may wax ay wolof laay wax lu weer nañ waaw jur gi doon bëtit fi mu doon nii dara xotti biir bi bëtit yi lang ci suuf loolu ci jur gi la yem loolu borom jur gi du ko yëg nañuy aw ci aw yoon tey def lu jub te sagal sunu bopp sëriñ bi moom wàccoon ak ñun lu des ci ñun la dese lu nu amut ci moom ci nun la waaye du ci moom wax na lu leer lu way amut ci moom ci yow la waaye moom li nu bëgg lépp daje na ci moom daana wax ni mu tukkal laa goo xam ne ku nax ba ma yës looy bañ mu laal suuf booy boo nga jël ko ndax ba ma fittee danaa ko yóbbu waaye nax gi ba mu yës day jafe na ay caaxaan naxu ko de nahaaniya xubbullaahi la mu ca teg ma nihmal muhaymin anil may la am maxtira wala xaq ak lu dul dëgg kenn mënu caajaarloo suñ tubaab kenn mënu ko kenn jëralu ko ko kon nañu seetaat suñu bopp bu baax a baax te dolli suñu war ma suñu diggante ak sëñ Tuubaa dolli suñu war ma digganteem ak njabootam gi doom mi war ma digganteem ak bokk yi waaye nag nangu nañ sëñ Tuubaa ami doom ami sët waaye nanguwuñ mu ami bokk am nay bokk am nay bokk de te bokk yi ci lañ mat naa bàyyi xel bu baax a baax boo gisee lettre yi muy bind buy bind suñ Mor jaar day bind al aqul kabir bu bind maam Cerno day aqul saxiir Ibrahima buy bind sëñ Bàkke bu sa ibnul amat alxaal sama yi bàjjan sama doom yi nijaay sëriñ bi am nay bokk te rëkk te loolee bokkam mag ñi dañ doon ni nit xam ne ak ak bokk ab taalibe bi mënu ko dox diggam ak sëriñam ñu jaay bokk nga jënd ko ak taalibe bi bàyyi bokk ak sëriñ bi te xam ne dara du ci yàq ndax moom matt na ko sa gënewuñu woon bokk ga de dañ ko bàyyi woon ndax moo leen ko dàq sàmm bàyyi mat naa bàyyi xel bu baax yooyu yëpp ci ormay sëriñ bi la orma ji la mat naa bàyyi xel bu baax a baax la sëñ Mbay Jaxate da doon wax lu am solo dafa tàpp ci gannaaw bis mu tëdd ab taalibeem di ko bës léeg-léeg mu teg loxo ci ci tàpp gi bu fudd mu defe ni foofu la coono bi ne mu dellu si fi loxoom te sëñ bay ruus na ko wax ni ko yaa ngi may gaañ waa ji di bës rek ba tàpp gi fàcc deret ji génn tàpp bu njurut bu ngeen deret tey génn waa ji daw sëñ bay ne nañ ko ko wëral ñu wër waa ji ba indi ko buñ ko indee sëñ bay rankoñ yi sotti ko sëñ bay ni ko nii tàpp gi def génnewut sama rangooñ yii ndax wóor na ma ni lu baax dong nga ci jublu woon wóor na ma ni boo xamoon ni fuy metti la doo ci teg sa loxo waaye dama tiit mbaa du suñ digg ak sëñ Tuubaa nii la mel looloo ko tax a jooy mbaa du suñ digg ak sëñ Tuubaa nii la mel mooy di sonn ci mbir di ca karkarit sëñ bi soxlawu ci dara moo tax li ñuy def nu war koo dëppale ak suñ sunna nanu delloo si waat suñ bopp bu baax a baax sëñ bi ñoo ngi lay sant bu baax a baax ñoo ngi lay ñaanal bu baax a baax ci addiyee ji nga xamante ni ni moom nga joxe te wóotu ci murid yëpp yàlla na suñu borom defal lu kawe sa njort sunu xol sedd da bu baax a baax ñii nga waxit murit yëpp amee na leen njukkal ndax danoo amul lu dul lenn liñ gën a soxla nekk foofu suñu yaakaari adduna jëpp nekk foofu ñu bàyyi seen lépp di ca xëy suba ak ngoon ngir bëgg mu dëppoo ak bëggam te toujours damay wax ni Touba ak dakaar la ñuy tëkkale dakaar ab la Touba ab dëkk la kon Touba jéggi na dayoo ndax Dakar mu ab la te dañ naan à part Dakar Touba Dakar Touba amuloon aw yoon ndox mi neexul climat bi tàng na pétrole feeñu fi amul géej amul jamaan nit ñi dalaf dalafi kenn mën tëye tëye sa bopp ku ne naan Tuubaa laa jëm sëñ Bàmba mais fi tëdd rek bu fi tëdduloon dëkk yëpp ak fépp yem kee fa tëdd nag amuñu ku dul moom ku cay sonn amel na nag pay koo xamante ni amuñu ab limam luñ la joxul ci suñu xol dañ ko amut waaye yéene nañ la moo tax jëf ji rey na lool ci noonu na ci ciy sant bu baax a baax ñoo ngi sant bokk yëpp nag di jéggalu xam naa wax ji bari na te li ci am njëriñ bariwul waaye noo ngi koy jéggalu bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillahi arrahmani irrahim sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wallahu yaxtasu bi rahmatihi man yashaau safaru bamsashin jannatun صفيت عمري وكفيتني الخجل يا ذا البقاء وكفيتني الوجل فديتني بذي الكفور والكسل وجدتني منك بما عيبي غصل رفعتني لك بما منك نزل يا من كفاني يا عدوي وانعزل برأتني من كل شك وملل وكل ما رددته من الملل مددت لي ما لا يفارق الجدل يا من متى لك توجهت بدل سعادتي لديك قطت في الأزل يا من كفاني الفراء مع الغزل شهدت لي بخير خير في النحل يا من فداني بمن خبل محل جدت لنا بمفرد فاخ الجمل قدس لنا مخجل جيش وعمل جبت لنا بمفرد فاق الجمل قلت لنا مخجل جيش وعمل نبتني تنبيه باق لم يزل أورشتني أكرم ما منك نزل ناجيتني ربي بمخجل الأمل يا خير من ناجاه عبد بعمل هديتي جاءت بما عيبي غزل وقلت لي ما ليس ينحوه كزل ترس حياتي عن شقاء وخجل بقاء من أورثني الذكر الأجل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 مختار من مدري شفيع أمته في البر والقدر يا ربي بالمصطفى المختار من مدري شفيع أمته في البر والقدر يا ربي بالمصطفى المختار في أمتي في البدر والخدار يا ربي بالمصطفى المطار من مداري شفيع أمتي في البدر والخدار أتت فيهم كل ما يسوء من البشر والتسري في دعم مدى الجميع به وسر لهم موجبات الأمن والبشار واجعله لبدا بالإسلام في أمان وتكفيهم كل ما يفضي إلى مرار وسل دابا بتسليم عليه بمن لو تمولت جود بساف ودرار وسل دابا بتسليم عليه بمن له تمولت جود والدراب Moustapha Bassirou lañ ko